ku nekk am na sañ yàlla ñaan ko di jëkkee xam ngeen ne sañu ñëw na kenn amut yoon ci ñaan yàlla lépp lu leen soxal rek dañuy ñëw ci yonent ko ñaanal yàlla xataa baaw ñun buñ maree dañuy baaw ñoom bañ bëgg maree dañ ne Muusa baawal ñu rek yonent yàlla Muusa nag dal leen ñaanal fa qul naa tañ wax ne ko idrib dóoral bi hasaaka xetta alxajara doj ware yàlla ne ko doj wi dawoon ak sa malaan ma na ko dóor de na nga ko dóor sa xet wi de aw doj dawoon wu xoyof wu xam ñenanti koñ mel ni bopp tànk te dafa nooyoon mooy doj wa dawoon ak malaanam ma fa doon sangoo yonent yàlla Muusa yàlla daf koo bindoon muy waaju bari sutura bani israila dañ daa booloo di sangu ñëpp def yarami neen te duñ ca rus dara ku nekk di ci saxaw rey morom Muusa moom yàlla bañ loo ko loolu muy ndaw rek moom buy sangu fay dem ba sori ña mu sangu sol malaanam ñëw ci kanam nit ñi Moussa soo gisee muy beru di sangu ni di nëbbu dafa xuuxaan rek di ko nëbb bés woon ko ba ñëpp gëm nañ ne Moussa dafa xuuxaan yàlla bëgg ko dañal ca loola bés mu dem sangu ba noppi ba mu ñëwee malaanam mi mu tegoon ci kaw daju mu bëgg a sol malaanam rek daj wane téppéet daw ak malaan ma mu naa ah, xajarul saw bi daju jox ma sama malaan daju jox ma sama malaan daj way daw rek Moussa mënu ko jot ba mu àgg ci kanam nit ñi ñu gis ko fekk dara laalu ko ci lañ ko doon wax mu fa malaanam sol waaw dóor doj wa nag yàlla ne ko dencal doj woowu da nga ca ami soxla ba nga xamee ñu ngi ca tiyow ba bañ ñaane bañ ne ko ñaanal ñu ndox doj woowu la ko yàlla ne ko génne ko dóor ko sa xeet mu génne ko dóor ko xeetam wa doj wa ñenanti koñ la woon koñ bu nekk ñen ñetti sew ñetti sew nde bal ca waaw ñetti robino bal ca rek waaw di xaba ba bi ñoom ñëpp ji bu nekk ak seen robino fan fajarat tam bal moom daj waa te yool tu min hu ci moom gis na ta asarata ñaar ak fukk xay nan ciy seewle de limab waaw sëti bani israila de bani israila fukki giir lañoo ñaar daj waa génne leen fukki robinoo ñaar yu bokkut buur daal ne xanaa li ma xam na bon kullu unaasin képp ca sëdiya masra ba moom naanu waaye seen day bon de gu nekk xam nañu ne waaw mën nañoo wéetoo feenam naanu waaye kenn du leen ca fukk ak ñaar lañ fukki teew leeg ñaar bal na tukki ci doj wi loolu ci kéemtaani yonent yàlla Muusa waaw la bokk de waane doj wu ndox di bal jóge ci doj lu mu dodo kéemtaan gis nañ doj yi bal ndox ba tey waaye kara xareeb tamboor ba saaba yi mare te fanweeri junne lañ ñëw ci yonent ne ko mar wi dana rey nit ñi loxob càmmoñam bii la bës rek waaw soo dee ca bàyyi ko ca diggante baaraamam ya de looloo gën a foor li Muusaa def de ndax ndox muy ball ci doj day ku nekk gis na ko waaye ndox muy ball ci dukkee ci diggante baaraam loolu moom keroog lañ ko mës a gis de way jëkk way mujj mësuñ koo gis buur ne kuloo lekk leen ci mënnoo salwa ministre laay ci li ñu wërsëgal yàlla wërsëgu leen yàlla jox lekk leen ci sabo naan leen ministre laay ci li ñu wërsëgal yàlla yàlla li léegi nag xamatu leen jàmbat jàmbat ngeen ñam wàcce nañ leen ñam yi gën neex jàmbat ngeen mar waaw waaw balalal nañ leen ay seewle léegi nag lekk leen naan leen farata sa waaye bu leen yàq fi la ci suuf muf si dina ndip mu ngeen di wa yàq de waaye nag bu leen yàq suuf si de yàq suuf mooy gannaaw bu aji waa de amee nga bañ a gëm tey gàllankoor waaw kuy gëm de waskur jàngatal isqultum ba ngeen waxee yaa muusa yow muusa la nasbira nun day muñ ci nu alaa taamin ci xeetu ñam waaye din wuri wenn de ba leen gëlëmaane la sappee nag waxuñ dëgg ñam wa sappi wu leen ne mësuñoo gis ñam wu neexee noonu waaye daal ngëlëmaane daa leen sappi ñu ne muusa wenn xeeti ñam rek bët bu set loolu daal sappi nañu rek tey day watoo ñaanal la lanaa ñee anu rabbaka borom sax yuxrij mu génne lanaa ñee annu waaw lëf mi maa tunbitu ca la dana saxal ko larlu suuf min baqlihaa ci daala moom baqalam la wa qistaayaa ak derefam wa fóomihaa ak hintatoom waaw waxante si ak xatasam wa basaleaa ak basalam mooy soble ak laaj ñu ne ko ñun daal ñam yi ñu yàlla wàccee sàppi nañu dañoo bëgg luy jóge ci suuf deraf soble pooro laaj waaw kay ñun loolu lañ bëgg xam nañ ne loolu moom mënuñ ko amee lu mooy ca dëkk ya mooy génn ci ngërëmaande yi rek xaala wax Muusaa ñeena leen ne leen atastabdiloona da ngeen wat alladi laala huwa moom adnaa moo gën a bon bi la fii ca la nga xam ne woo moom xayrun moo aji tedd moo xayrun moo gën a teddam moo seen ñam wu tedd wii di wàcc yàlla di leen ko wàcceel mu jóge ci kaw ko wote yu bon ngeen di laaj ah, ñu ne ñun loolu lañ bëgg dara lañ soxlaatu ci ñam yi wàcc ci ñun nañ dem rek ñu waaw def suñu plan laaj daal di ne ihbitoo wàcc leen misran ci njëndi boobu waaw ci leen ci njënd ci njënd yi rek te waaw loolu lañ ca bëggoon fay na lakum naka aji nak la ñaa leen maa saaltum la ngeen laaj léegi nag na ngeen dem bayti maqadis wala arian rek ngeen bay da ngeen am li ngeen bëgg de wa duribat defeet alayhim ci ñoom zillatu toroxte wal maskanatu ko miskin jeexiti ñàkk ku ci riis itam boo ko gisee yërëm ko bëgg ko sala waaw ndax jeexiti ñàkk dootu jóge ci ñoom mukk yàlla leen ko taqale foo gis yowat ma nga ni ki nga xam ne dërëm mën da taggoog waaw sikk ga waaw signature bu ree ca nekk ñoom it mënatuñoo taggoog woowu melo de wa baaw tañ delloo bi xasabin ci mbugal dina laay mu tukke fa yàlla zalika googu lee def ak mbugal waaw googu lee def ak toroxtaane ci ñoom ak mbugal bennoom ci saw si naka ñoom kaanoo nekkoon nañu yakfuruuna di weddi bi ayaati laahi ci kaate fi yàlla yi wa yaqtuluuna te ñoom danañu rey na nabi ina yonente ya ni ki dañ leen rey bi xayril xaq ci tooñ zalika loolu bi maa saw ci seen borom mooy seen gañ mooy seen borom de wakaanoo tañ mekk yeexta di jéggi daay dem gis nga fukki xéewal a góor yàlla jox na leen ko tojal na leen waa baxaru xalsoom musal leen ci waa firawna mi leen doon rey waa rey seeni doom waaw waaw labal firawna waa ak ñoñam jéggal leen bañ jaamoo yëkk wa waaw bañ dee mu dekkalaat leen waaw xeral leen waaw ca niir wa ba nga xamee ne ñu nga ca tiyow ba wàcce leen mannu waa ak salwaa bañ jàmbatee ndox waaw mu xotti leen fukki seen rek ñaar waaw yooyu yëpp ñoom ñu fay ko waaw weddi yàlla ak ray yonent ya waaw ak jaamu yëkk wa waaw lool loolu loolu lañ fay de ba nga xamee ne fay nañ yàlla yu bon yooyu itam yàlla yi daana ci ñoom fukki xeeti mbugal waaw yi nga xam ne moom lañ jàngat de ni jibril xaacu na ci ñoom ñu dee waaw bañ nekkee ca waaw mii xama waaw digal na leen ñu rey seen bopp ba ñu rey ci ñoom juróom-ñaar fukk ab junne mbas wàcc na ci ñoom ba rey ci ñoom waaw juróom-ñaar fukk ab junne def na ci ñoom toroxte ak ak miskin waaw boo xam ne dootuñ taxaw te xalikoog moom mukk def ci ñoom bugalam yàlla def leen lu yàgg-yàgg waaw duñ taxaw mukk lu may ñu ngi ci ron koo xam ne moo leen boot leen musale waaw ba fa àdduna loolu waaw moo di waaw moo indi la si na naka ñaaña amanoo gëm nañu yonent yi ca jëkk wala si naa ñaaña haadoo yawat nañu ak ñi nga xam ne dañoo yawoo doon wa nasaara ak nasaraan yi ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci diine nasaara wa saabi na ak saabi nay kuré lañ bu nekk diggante yahood ak nasaara di wati faaraar manaama nag gëm na mu ci ñoom bilaay ci yàlla wala yoom di kër bés laaxiri ba di aji mujj ci jamono yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa amila tam jëf saalihan jëf jiw mooy jëfee sariatu yonent wala maa ji nekk la ñaa leen ajruhum yooli jëf seen de inda rabbihim fa borom seen wala xawfun déet ragal alayhim ci ñoom wala am déet ñoom yasaloon ñu jàqale la jaan den mbooleem kuréel yu jëkk yëpp koo ci xam ne gëm na yonent yàlla Muhammad tey jëfe sariyaatoom bile amut yahood amut nasaraan amut saafi amut yaaram ak làkkat ak kenn ku wax ashhadu laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna Muhammadan di taxawal julli woor weeru koor waaw di génne sa asaka ak néegam yàlla soo ko mënee waaw ñooñu ñooñu ñoo xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu ngi ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de te ñooñu ñooy wali yàlla yi nga xam ne amuñ lu ñuy ragal waaw buñ deexee amuñ lu ñuy ragal ci seen gannaaw amuñ lu ñuy ragal waaw ci seen kanam de moo tax ba tànneef bi nga xam ne yàlla tànn na ko xeetu yonent sallallahu alayhi wa sallam ci jëf ji jëf ji rek la aju ak gëm ji de du ci cosaan waaye diine yonent sallallahu alayhi wa sallam amul cosaan waa xamul tafaltikoo waa xamul yaaram ak lakkat xamul yahood ak waaw ku dul yahood képp ku gëm yonent bi rek sallallahu alayhi tey jëfee di nga xam ne moom la samp rek waa daal di tuddi ca daal di tabbi ca tànn tànn ga de Abdullah ibnu Salaam moo doon njiitu yahood yi ba yonent ñëwee Medina moo njëkk a jébbalu bokkoon na ci tànnee fi saaba yi de waaw moom Abdullah ibnu Salaam bee ma sey dugg fi ci jàkka ja ba muy jub rek yonent ne waaye ngi ñëw ci ñooñu aljanna la bokk de ba maag téye di moom Abdullah ibnu Salaam moomu de saaba yi daldi ko topp ne ko wax nañu ci yow lëf wax ñu luy sa jëf ndax ñu roy la de ndax ñoo xam lu mel ni li nga xam yonent ne ci ñooñu aljanna nga bokk mu ne ah man de taxumaa bari julli taxumaa bari koor taxumaa bari sala li ma seetlu ci sama bopp daal bés bu ma xëyee am naa pas-pas sama xol du ma ci bañ benn jullit du ma ci ambal lu bon benn jullit sama làmmiñ du ma ci wax lu bon benn jullit ba sama ngoon di jot ngoon bu dugg danaa am pas-pas sama xol du ma ci bañ benn jullit du ma ci yéene lu bon benn jullit sama làmmiñ du ma ci wax lu bon benn jullit ba ba ba loolu daal laa seetlu ci sama bopp a ñu ne ko loolu nag looloo ko may maqaama boobu yonent sallallahu alayhi a sallam de yonent sax fa wax neen bu leen ma nettali dara luñ ma wax waaw ci lu bon bëgg naa daal sama xol ma bañ cee dencal kenn lu bon ba ma may dajeeg sama borom ndax pencam yàlla yàlla na kenn du mucc lu may koo xam ne dikkal na yàlla ci xol boo xam ne xol bu set wecc la ci mbooleem jullit ñi rek de waskur jàngatal yow muhammad is axas naa ba nu jàppee misaaqakum kóllëre seen bañ fasanteeg yahudi nee nañ jëfe tawreet warafaanaa tamit moom yëkkati nañu fawqakum ca kaw seen tóora dajwa ba yàlla wàccee tawreet nag bani israel seet tawreet tabee fi ak ñoom ñu ne Muusaa ñoo lànk ñun lii attanuñ ko nu yàlla def jamono tóoru daj ba nekk delloo na ñoom te gën a rëy ci daj yi Jibril dal di ko bugg rek tiimale leen ne nangu leen rek wala ma këpp daj wi ci seen kaw ñu ngi julli ku ciy julli da ngay sëpp sa genn wàll ak jë waaw di geesu dañ waa ngi dal ci sa kawam de moo tax ba léegi loolooy sujjóotam yëwat seen genn wàll ak jë rek la ñuy sujjóote waaw genn wàll ak jë càmmo gi ñu ñu ngi geesu dañu ba xam mi ngi dikkam de ñoo leen xusoo jàpp leen xusoo jëfe leen maa tey naa kum la nu jox leen bi xuwa si ànd ak farlu yàgg na def leen li nga xam ne moom la tawreet santaane rek waskuroo jëfe leen maa fii la nekk ci daa rakkum boo yéen sax ko na ngeen ci safara ak mooy yàlla rek day waaw ñu soog ko nangu de moo tax seen sujjóot boobu ñu ne duñ ko bàyyi wukk ndax moo leen musaloon ba tey ñu bëggee daanu ci seen kaw seen sujjóot ak genn wàll ak jégoo nga xam ne moo leen musaloon waaw ñu ne doo duñ ko bàyyi rek day day su ma tawalee tum topp ngeen dëdd gannaaw ga min ba di saalika ci gannaaw loola gannaaw kóllëre boobu ñu dellu dëddati lànk walaw laa fadlullaahi duggante ko nag yow bóor aleykum ci yéen wa ba may leen tuub ñi ca tuub tuub ñi ca des yàlla yéexe bugal ma la kuntum kon tey ngeen nekk minal xaasiriina ca way perte ña de wala xal xalimtum xam wallaay xam ngeen àll si na ñaaña ita daw rëbb nappoon nañu min kum ci yéen fi sab ti ca asal ja de te xam ngeen itam ba tey ca seen bon bon ja xam ngeen ñu nga xam ne dañoo nappoon ci asat te fekk dañ leen ko aaye woon faqul naa tan wax la hum ñaa leen koonoo nekk leen xiradatan di golo xaasina yu di ñu sori yërmaane yàlla de ñu xalak leen soppi leen golo ñooy waa ilata dëkkam ñooñ daawuda yàlla dafa wax bari israel ne leen tànn naa bésab xajuma bu dikkatee na ngeen féex def ko muy bésab xeet ñu ne ko déedéet ñun asat lañ bëgg asad ji yàlla fiixoon ñun ci lañuy fiix ndax yàlla fa wax ne bind naa àddina ci juróom benn fan dale ci dibéer ba ci àjjuma mu jaaxal asad ñu ne asad dafay dafa noppalu nag ñu ne bés bi yàlla noppalu ñoom ci lañuy noppalu waaw yàlla wax wax àjjuma laa tànn ñu ne ñoom asad lañ bëgg yàlla na leen asad a ngoog waaye napp jën yi ngeen lekk sax mayu ma leen ko ci ah ñu ñu ne nangu nañ bu asatee nag jën wi nga xam ne moo wanoon yonent yàlla yoonu sa jën yi ci àddina yëpp dañuy daje di ko siyaarasi su ko defee jën yi dañuy tëmbeeli ci kaw géej gi duñ daw kenn bés boo xamee ne asat jógee na nag bu ñu napp duñ gis benn jën moom la yàlla wax ca saaru laraaf istaatiim hiitaanum yawma sabtihim shur'an wa yawma laa yasbituuna laa taatihim bu afet ñëwee jën yi dañuy tëmbeelu ci kaw géej gi bés bu afet ñëwul nag duñ gis benn jën ngeen xam it hikmatu bi nekk ci booloog jën yi mooy siyaara rek dañ mooy siyaara si jën yi nga xam ne moo war noonu yonentab yàlla di barkelu ci moom ba nga xamee loolu yàgg na nag nam nañ jën mënatuñu am benn jën benn waay bu muus bu affaire bi jotee géej gi dafay waaw duus la ñëw dugg ci kër yi jën yi saxaan na ci boo xamee ne affaire bi wéy na ñu napp waaye terewuñ leen ñenn ña nag ñoom ketteerlu napp waxul naa doon wax lawum ñaa leen koonu nekk leen xeradatan di golo xaasiina yu di sori yërmande yàlla de xaasiina yu di way torox yàlla soppi leen golo ñoom ñëpp bët set bët set rek kenn biwul sa néeg ah ñu ne ruq bi la day moom kenn ubbiwu fi néegam ñi nga xam ne napp ñu woon te te digaloon nañ leen lu baax te rexoon nañ leen ñëw seeti leen bunt bu ñu bi rek gis ko lay waaw jaab rek di di leen junj ba jaal naa doon def ko moom jëf jooju nakaalan muy mbugal nakaalan muy xalam lu di aji tere leen rëbb de yàlla def ko muy xalam loo xam ne dana leen tere toggoo lu mel noonu beneen yoon de li ma bay na yaddaa ñeel xeet yi jëkkoon leen wa maa xam saa ak ñu nekk seen de moo way sa tan sa dig waar mu taqi na ñeel way ragal ñu yàlla de ndigale ngoo kóonoo xere dana xaasiina alquran lamboo na ndigal ndigali alquran nag am na maanaa yu bokkut ndigal dana ñëw ci alquran dafay tegtale ak war niki aqimu salaata wa aatu zakata taxawal leen julli loolu ndigal la te ndigal lu war la moo tax julli di farata ndigal dana ñëw fekk ndigal luñ sopp rek la niki fakkaati boobu alimtum fiim xayran soo jotoo sa jaam waaw soo amee sa jaam bu daal bu bëggee jot boppam jotol ak moom ndigal dana ñëw fekk daf lay muus loo rek daf lay jox pexe moo xam ne baax na ci yow rek ni ki ida tadaayantum bi dañuy daa jële musaman faktubuhu wastashhidoo ida tabaayatum sàkkal seede booy leblante loolu du farata du mandóob lay xee rek ci sa jëflante ak àddina su la neexee def ko waaw su la neexee it nga bañ koo def ndigal dana ñëw fekk daganal rek ca la toll ni ki rëbb leen lu tax rëbb nekk farata lu tax mu nekk sax jaamu yàlla ak kuloo wasraboo yu demee noonu ndigal dana ñëw fekk daf lay yar ni ki yow mi wax sa doom kul mi maa ci bal ndigal dana ñëw fekk tàggat la ci yàlla jublu soppali mbindeef ni ki kuunu qiradatan na ñu nekkoon ay nit ñu soppi leen ay golo ne leen nekk leen di golo ñu daal di nekk golo waaw loolu mooy ndigalal tasxiir ndigal dana ñëw fekk tëkku lañ ca jublu ni ki amalu ma shi'tum defal lu la neex rek waaw yàlla mi la digal tere la su tobe su demee ba la defal lu la neex mooy maanaam danaa la xalak rek defal lu la neex danga nga dem safara defal lu la neex da nga xalaku da nga torox ndigal dana ñëw fekk mébét rek la ni ki laa imrul xaysi wax ala ayoha laylu tawilu alan jëli guddi gi wuññeekul maanaam mébét naa guddi gi wuññeeku rek la la tekki ndigal dana ñëw fekk ñaan la ni ki yow jaam bi nga naa rabbi ixfir lii waaw yàlla baal ma da koy ñaan waaw mu baal la ndigal dana ñëw fekk dafay xemale waaw ni ki isbiro aw laa tasbiro sawaawun aleykum ndigal dana ñëw ngir doxadal ki ñuy digal mooy koonu hadiidan qul kuunu hijaaratan aw hadiidan aw xalqan mimmaa yakburu fii suduurikum maanaam faale wu ma leen la ci jublu ndigal dana ñëw <clears throat> fekk maana lamboo teranga ni ki udxuluuhaa bi salaamin aaminiin yow muy wax gan sa gan ko dugg sil waaw moom koy dana dugg sil da nga ko woon rek ne koy terale naa ko dugg sil waaw ci sa néeg loolu waaw lamar yi ci alquran yëpp waaw bu ci nekk xam na fannam du ni lu yàlla digle ci alxuraan rek mu daal di nekk farata waaw konoon yu bëri nekk farata de waaw kii moom ndigalal tasxiir la kunu qiradatan xaasiniina ba jaal naa atan def jëf jooju naka lan muy xalam lu de aji tere loon waaw rëbb ma de li ma bay na yaddaa ñeel xeet yi nekk ci jamono seen wa ma xal fa ñu nekk ci gannaaw seen wa ma weesatoon sa di ko wàllin mu toqi na ñeel way ragal ñeel de jagle na leen aw tub ndax ñoo koy jariñoo wa it xataltum nafsan ca kanam waskur jàngatal it xataltum ba ngeen rayee nafsan bakkan fa daaraatum te ngeen xuloo fi a bakkan ba jàngatal ba nga xamee ne ndax ñu féetalee bon boni bani israila yi ba nga xamee ne bani israila dañoo rey bakkan te xuloo ca bakkan ba wallaahu yàlla muxrijun aji aji génne la mu maatas du mën la da ngeen nëbbu ko rek te day fekk yàlla nar naa feeñal la nga xam ne doon nañ ko nëbb de benn waay bu ñuy wax amil ah dafa bari woon xalal lool te xamul doom ay mbokkam nag ak i doomi bay taxam ñu ko war a donn néeg néeg mu dee bañ doon xalal ji mu tëx dee ñu yàkkamti mu tëx dee ñu ñëw guddi rek génne ko ci néegam yóbbu ko ba ca àll ba ñu rey ko rey ko ba noppi dem sànni ko ci ñagab beneen dëkk xëy nag naa ñun de gisuñ fi mbokk ma biig ba tey kenn gisu ko ñu ne ko wuti ñuy wër di wut di wut di di wër di wër di wër di wër ba ñëw ca dëkk fañ ko sànni woon ca ñaag ba ñu daal di woo waa dëkk bi ne leen suñ mbokk mi ñu réeroon fekk nañ ñu ngi ko rey ci seen ñaagi dëkk yi yéen a ko rey ñu ne ñun rey ñu ko yeguñ ko ñu xulóog ñoom waroon nañu reyam foofu ñu ñëw ci Muusaa yénoon sab yàlla ne ko feeñal ñaanal yàlla mu feeñalal ñu suñ mbokk mi ñu rey ku ko rey xanaa boobu ñi ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko ñaanal ñu yàlla mu feeñalal ñu ku rey suñ mbokk mi rek moom la yàlla wax ne waskur jàngatal isxaara ba waxee Moussa Moussa li xaw mi yi ñeel itam ña fekk rey nañ ci ñoom kuñ rey kuñ xamut ku ko rey ne inna laa naka yàlla yaamurukum dana mu digal leen an tasbahu bu ngeen rendi at baqaratan aw nag Moussa ne leen dem leen ngeen rendi nag xaaloo ñu ne atataxisuna da nga jàpp nu husuwan ñu di ñuñ yéej ji husuwan ñu di ñuñ reetaan yow yonente yàlla bi dang ñuy ñaawal xanaa ñu ne la suñ mbokk mi ñu moom lañ bëgg nga ñaanal ñu lu feeñal ki ko ray nga naa ñu leen nag Muusaa ne leen waaw ray leen nag looloy feeñal li di laaj xaala wax Muusaa ne amosu dana ma muslu billaahi ci yàlla an akkoona bu ma nekkan minel jaay dina ci way réer ña mus naa yàlla réer ba yéegi waaye li ma leen wax rek loolu mooy tontu li de bañ xamee nag ne Muusaa dogu na ci rey leen nag moom la leen tontu ba mu leen ne rey leen nag nag wu ñu reyoon rek liñ doon wut dana feeñ waaye ñu jafeel yàlla it jafeelal leen nag wa xaaloo ñu wax ne udoo ñaanal lanaa ñeelnu rabaka borom sa yu bay mu bidal lanaa ñeel nu maay yow lu di xatam ñu ne ko nag yu mu ñu reyloo nagu ñaata xat la wax xaala wax Muusaa innahu naka moom yàlla yaqulu dana mu wax innaha naka moom nag wi baqaratun nag la laa faaridun du ma màggat wala bikrun du ma aji ndawe awaa nun aji digg doomu la mu benn saalika ci diggante yooyu la yaar de mu ne nag woo xam ne du màggat lu gone lañ leen wax waaye def leen ma tuumaroon la def na digal leen ko rek tey da ci rendi nag woowu xaaloo ñu ne utuma ñaanal lanaa ñeenu rabbaka borom sa yu bayin mu bidal lanaa ñeenu maa law na xaalu diw meloom ñu ne ko na der bay mel waaw nañu ko yàlla bidalal xaala wax Muusaa ne innahu naka moom buur yaqulu dana wax ne innaha naka moom nag wi baqaratun nag la safraa wu de aji gel faaqiun wu de aji tat law na melow gelam nga nagu gel gel gu jéggi dayo loolu yàlla sant rek te rey waaw jafe na nag te surur dana mu bégloo naasiri na way seet ña de nagu gel woo xam ne ku ko gis rek waaw dana la neex de xaaloo ñu wax ne ko doo ñaanal lanaa ñeelnu rabaka borom sa yu bayit mu bidal lanaa ñeelnu maa yi yow mu doon ndax nag wuy boy ci xàll am nag wuy liggéey di béyaka roose inal baqara naka xeeti nag te sabaani doona ale naa ci nun nag yi dañoo bari ci ñun ba mënuñoo xam nag wi yàlla wax wa inaata naka nun la muhtadoona way jub lañu insha allah ndem soob na yàlla de waaw daañ jub def ci li nga xam ne moom la ñu yàlla sant def yonent na suñu waxutoon insha allah dañuy laaj ba ba ñu dee Musaa di leen tontu waaw te lu yàgg-yàgg duñ xam nag wa waaye bi ñu waxee insha allah nag barke bi insha allah bu ñu leen tontoote rek ñu daal di am nag wa xaala wax Musaa ne innahu moom buur yaqulu dana mu wax ne inna naka moom nag wi baqaratu nag la laa salulun du mu tàggat muy jëf su siiru woo dana mu jaqi lar la suuf duut nag wuy bay wala tasqinan lal ti mu alxar sa mbay du nag wuy roose du nag wuy liggéey dara musallamatu musallamu ci mbooleem xayib ak jixiti jëf nag la woo xam ne amul benn xayib te mës la jëf dara laa seeta dee du mela nag fiaa ca nag wa lu dul melo yi jiitu woon amul weneen melo nag lu ngeen di laajati dem leen rek nag bu mel noonu la leen wax xaaloo ñu wax ne ko alaana léegi nag jiita nga waxee nu di dàq ci dëgg de ñu ko léegi nag nga ñu wax dëgg nag waaw léegi nag mën nañoo xam nag bi ñu daldi dem nag di wuti nag wa fekk ko fa xale ba nga xam ne dafa baaxoon ci yaayam xale bi baayam dafa dee fekk mi ngi gone baayam bayiwul lu may wenn nag waaye ba dàq nag wa ba yóbbu ko ci benn gol bu bari dëkk ya ne yow yàlla ibrahim maa ngi lay dénk nag wile bu sama doom màggee ëllëg nga jébbal ko ko dénk naa ko yàlla ibrahim dàq ko mu dugg ca gol ba ba xale bi màggee nag nekk xale bu baax ci yaayam liy ma liy may doom su bëccëgee mu dem taxani bu taxanee teer ko jaay ko bu jaree mu def ko ñetti xaaj benn bi mu jox yaayam benn bi mu dundee benn bi mu sadaxe ko bu guddi jotee mu def guddi gi ñetti xaaj benn bi mu toog fi yaayam di ko wéttale benn bi mu nelaw ko benn bi mu julli ko di ko def di ko def diko def di ko def ba mu yàgg yaa yéene ko bés léegi sonn nga ci taxan mi te xam nga alal sa bàyyi aw nag ca gol sàngam yàlla Ibrahima la ko dénkoon na nga dem ba ca gol ba nga ne yow nag wi ñëwal xëyu ma ci ndigalal yàlla Ibrahima xale ba dem ca ba ne yow nag wi ñëwal xëyu si ma ci ndigalal yàlla Ibrahima nag daal di daw ñëw fekk si ko ne ko war ma ne sama yaay waxutoo ne naa la war day waaw boo nag du ma la sañ a mu ne ko soxna waroon rek ma tëlal Muhammad ko ñëw ne yaayam nag waa ngi yaayam ne ko demal ca marché nga jaay ko jaay ko ci juróom jaay ko ci ñetti libi door waaye bul dogal kat te ñëwul tàggu si ma mu taxaw ak nag wa ca marché ba rek benn waaye daal di ko dogalu ne ko looy jaay nag wi mu ne ñetti libi door ci tàggu sama yaay mu ne ko jox naa la juróom benn libi door mu ne du ma jaay te tàggu mu dem ca yaayam yaayam ne ko jaay ko ci juróom benn libidoor te tàggu si ma mu ñëw waaja ne ko fay naa la fukki libidoor ak ñaar te bul tàggu sa yaay waaw mu ne ko du ma jaay te tàggu ma sama yaay de del ca yaayam yaayam ne ko kooku du nit malaaka la soo demee ne ko sama yaay ne ma laaj la ndigal ci nag wi lan laa ko war a jaaye xale ba dellu si ne ko sama yaay nag nga jox ma ndigal lan laa war a jaaye sama nag wi mu ne ko bu ko jaayee lu may ñu rey ko sol mbuus mi ba mu fees ak bani israila rey nañ nit laaj nañ Moussa lu feeñal nit ka Moussa tegtal na leen aw nag te nag lii rek moo mën a feeñal waaw bakkan boobu bu ko jaay nag lu may ñu rendi ko waaw duy mbuusi ba mu fees a gurus taggo nag ko xam naa ko def rek gaaño daal ak agsi rek na nag waagi loo wax mu ne rey ko rek feesal mbuus meeg wurus ñu ne ko seer na mu ne bon ngeen bàyyi sañ <clears throat> ñoo bañ ñu nangu ñu daal jënd nag wa nag rey ko fees ko waaw feesal mbuus maag hurus jox ko ñëw ne Moussa jël jël nañ nag wa ba rey nañ ko faqul naa tan wax filiri boobu dóor leen ko bi baax de ci lenn nag wi yàlla ne fab leen lam ñu nag wi rek wala ndokase gi ngeen dóor ko nii bi rek wan dana wax ci ko rey de ñu daal di ko ñu daal jàpp lam yi wala ndokase ko dóor ko ko mu daal di jóg taxaw ne diw diw ñoom ñii ñoom a rey dellu delluwaa de dee ñoom ñaar ñi ko reyoon ngir bëgg ko donn ñu xañ leen dono rey leen itam te la sariyaatu doxe ba tey ku rey sa dono ngir yàkkamtee donn daañ la xañ dono doo ko donn buñ la jéggalee ba reyuñ la sax doo donn yow ni yàlla dekkale kooku dee ci kaw ab xaaj ci nag wu ñu rey rek dóor ko mu daal di dekki buur daal di ne leen kadalika kem googulee dekkal yuy laaw lay dekkale yàlla almawta way dee de yeneen doon sikk ku dee yàlla mën na koo dekkalem déet yàlla mi dekkal waa jooju dee woon benn man noonu lay dekkale ñu dee ñu ëllëg de waaw ndax ku mën a def lenn mën ngaa def lu bari de booy def te ba saa bu yàggee mu bari wa yuriikum dana mu wan leen moom buur ayaat yi tekkali katanam laalakum booy taxiluna ngeen xel seen ngeen settantal ba xam ne ka am kattan ci dakkal benn bakkan waaw am na kattan ci dakkal waaw bakkan yu bari de ci boobu moo tax ñu tuddee saaru yi saaru baqara su ma xasat topp waw xuloobukum ay xol seen loolu nag yéen bani israila seeni xalu wow seeni xolu wow beddu nangu dëgg yonent na ne kees ji xol mooy xol bu wow jiw du ca dugg borom du dégg ak waat duñ ko digal ba mu dégg duñ ko tere ba mu jàjju ñu ne ko luy luy garab ak luy garab ak xol bu wow mu a tudd tudd yàlla ak ziyaaray ba meel xol yi danañ xoomaag ba mel ni weñ gu ñuul bu xoomaag su loolu dalee jaam na bëril tudd yàlla ak ziyaara ay bàmmeel moo koy nooyal tudd yàlla nag ci mbooleem xeetam yi bu fekkee ni gis nga ne tudd yàlla di ko yelu moo gën a dëppoo moo la gën a jariñ nga yelu di tudd yàlla boo gisee ne tudd yàlla di ko bidal moo gën a jariñ moo la moo gën a jeexital ci sa xol nga bidal ko soo gisee ne nga ànd ak mbooloo di tudd moo gën a jariñ àndal ak mbooloo tudd yàlla tudd yàlla daal moom dara ñaawu ca te dara xaayu ca lu ci nekk ànd naa ànd naa ndigal mbooloo mu ànd di sikar nag bi nga xamee ne yàlla nit leen a xol yu wow yi ak doj te doj suñ ko bëggoon a toj mbooloo mi ñëpp àndale seen doole dóor ci doj yi moo gën a jeexital moo tax soo Sufyaan kay ne mbooloo moo si sikkar itam moo gën a jeexital ci xol de waaw sikkar yonent na ne maa ngi ànd ak sama yàlla dana wax ne maa ngi ànd ak sama jaam su ma tuddee su ma tuddee ci mbooloo ma tudd ko ci mbooloo mu gën mbooloo xam su ma tuddee ci wéetaay ma tudd ko fi sama wéet su ma jageñ loo ab sebre ma jageñ lu ko xasab su ma jageñ loo xasab ma jageñ lu ko ab ñay su doxee jëm ci man ma waaxu jëm ci moom su waaxoo jëm ci man ma daw jëm ci moom waaw loolu yëpp yom yombal gi mu yombalal jaam bi soo xamee ne jublu na ci boromam waaw xàgg ca moom loolu la ci jublu de yàlla melal na xoli doomu aadama ne dafa wow ba mel ni doj waaw li nga xam ne moo gën a jariñ nag ci waaw saafara xol bu wow waaw mooy tudd yàlla de ak ziyaara ay ba mel de fa yiyee moom doj moom xol yi kal hijaarati na koy doj lañ ci wow mu ne seen xol yi dafa wow ba mel ni doj aw ashadu yi ke mu gën a tab sax xasootan ci wow déedéet xol yi sax ñoo gën a wow doj de daal di ko daal di ko firi wa inna min al hijaarati ngit naka aji nekk la ji leen doj la maayata fajaru wow dana ball min hu tukke ci moom lan xaaro ay yoon de am na doj yoo xam ne danañ toroxlul yàlla ba jooy ay sew la di nàcce ci ñoom xolab doomu aadama nag soowee loolu fekk ko way na min ha aji nak la ci leen di doj la maa yashaqaqu wa dana mu xotteeku fa yaxruju te génn mi ni ci moom almaaw ndox de xam na doj yoo xam ne danañ xotteeku waaw ndox génn ca way na min ha naka aji nak la ci leni doj la maa yahbitu waaw dana mu wàcc tukke ci kaw jëm suuf min xasitillaahi ngir ragal yàlla xam na doj yoo xam ne dañuy ragal yàlla be waaw di wàcc ci asamaan daan su suuf de waaw mooy doji dënu yi de te doj sax a gën a néew doj sax moo gën a nooy waaw xoli doomu aadama yi de yàlla wax na ci jeneen laaya law anzalna haadal qur'aana ala jabalin la ra'aytahu xaashi'an mutasaddian min xasyatillah waaw alquran ji ngeen di dégg yéen doomu aadama yi te jeexitalul ci seen xol dara su fekkoon doj a koy dégg ni ngeen koy déggee kon moom waaw dana xotteeku waaw te dana ragal moom yàlla de kon doj sax moo gën a nooy waaw xoli doomu aadama de wa ma laaw déet buur bi xaafilin muy aji bayi xammaa taamaloona ci la da ngeen jëf ko de waaye yàlla du wàcc dara ci seen jëf daf leen di yéexee rek def ci seen waxtu hisaab waaye ku nekk danañ ko fay jëfam de lu baax ak lu bon afa tatma'una bu leen yaakaar yéen jullit ñi an yu'minu lakum bu ñu gëmat leen ñoom yahuud de bu leen gëm mukk ne yahuud yi ci Medina danañ gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de waxat kaana ngir nekkoon na fariqun kuré minum ci ñoom yasmawna di dégg kalaama laay wax yàlla ca tawreet su ma yuharrifuunahu topp ñuy soppi ko rek waa amoon na ay fóode yahud yoo xam ne Muusaa tànnoon na leen yi juróom-ñaar fukk waaw ci seen tànneef yi yóbbu leen ca muy xama ne ñu balu ñi nga xam ne ñoo jaamu woon yëkk wa bañ demee ba xagsi ca muy xama rek ñiiru leer daal di dox seen digganteeg Muusaa waaw Jibril daal di gàttanu Muusaa moom yóbbu ko muy wax ak borom bi ñoom tànneef yi la ci gannaaw ñuy dégg wax yi génne ci jëm yàlla ja jëm ci Muusa ñuy dégg ndigal yaa tere loolu waaw moo leen jayoon ba tax ñu ne ñun sax dootuñ gëm lu ma ne ba tañ yàlla ci janoo Jibril dal leen xaaju ñu dee foofa ba Muusa ñëwee fekk leen ñu dee nag Muusa dellu tiit ne yow yàlla da nga ak tànneef yi ngir la nga xam ne dof yooyu ca dëkk ba defoon nañ ko mooy jaamu gañ doon jaamu yëkk woon yow yàlla su la sooboon day nga xalak leen ca dëkk ba balaa ñoo génn waaye bi ma génnee ñoom ba indi leen fii suñ fi xalakoo dañuy wax ne man maa leen indi rek pour jëbbali leen ñu xalak leen de waaw nit a gën a bañ ko tuumaal waaw Moussa di toroxlul yàlla nag defe na ne ndax jaamu yëkk wala lañ leen xalakoo lañ leen xalakee xamul ne dañoo sos beneen bakkaat ci biir mi xam yi mooy liñ wax ne duñ gëm lu mooy ba tañ gisee ak yàlla ci ba tañ janoog yàlla jaaratan loolu la leen yàlla alage woon naa ko def nag yàlla dellu leen waaw dekkalaat nag waaw ci lañ xamee ne ci la Moussa xamee nag ne leneen luy sosoon kay moom lañ leen alage woon du jaamu gañ jaamu woon yëkkawal laaj gi ñu laaj nag gis yàlla waaw te laajuñ ko ci kaw cofeel xanaa ñu ngi ko laaj ci kaw ndëng waaw loolu moom la leen yàlla alage de ne ñooñ yàlla dañuy laaj waaw gis yàlla waaye saw koo leen tee joo moo tax xale ko wuñ ca Moussa wax na ne waaw arini anzur ilayk yàlla wan ma sa jëmm ma ma ma seet jëm ci yow waaye moom cofeele ko ca joowoon aarifina it leen ci joo gis yàlla fii ci àddina nag gis yàlla fii ci àddina nag ci janoo kooku mustahil la ngir ay yëf àdduna xat na xat gu day yàlla di ci feeñu ay soppeem te yàlla suñ ko gisoon fii ci àddina nit ñi dañuy dof de bàyyi seen métier yëpp su ko defee àdduna tukki ndax mënuñoo dund lu mooy ñi am métier waa di di ci dund suñ gisoon yàlla fii ci àddina te kër gi di kër ay noonam boo mel ni ay soppeem ak i noonam ñoo ci am suñ gisoon yàlla fii ci àddina toggee fi tegeeku ndax buñ ko gisee rek waa nay daal abdikal mun taa kon yàlla dootuñu togg jëf ndax wante wut ak nag gis ci ñooñ yàlla di gis yàlla ci seen i bëti xol wala gannaaw buñ jeexee ci yàlla waa loolu moom loolu moom loolu moom leneen la nekkoon nañ di dégg wax yàlla yi ca tawreet su ma yuharrifuunahu topp ñuy soppi ko min ba'di maa aqaluuhu gannaaw bu ñu déggee ko wawum tamit moom ñoom yàlla moo na danañu ñu xam fayal yoon ci dajeeg ma yàlla ñu yàlla baal xamal yàlla mi ko tàmbali ba ko fi yàlla baal yàlla mi ko jàngoon ci tawreet dara manqué wu ci meloom ñu dellu nag seen sang di leen yedd ci loolu ne leen bu leen defati loolu ndax loolu fay tax jullit ñi mën leen a xëy ne ñoo nekk ci dëgg nit sooy wuuteeg moom ba nag fi jox ko lay ne moo ne ci dëgg kon kay xëyloo nga ko boo nag li ngeen xam ci soloy Muhammad ci tawreet yëpp nëbb leen ko jullit ñi bu leen leen ko waxati dañuy am lay de seen ndof nag buñ ko nëbbee jullit ñi ba waxuñ ko itam yàlla mi wàcce woon tawreet sa wàcce alquran moom dara na buu ko buur ne way daa laqoo ndem daje nañu ñoom naafiq yahuud alladina ñaaña aamanoo gëm nañu xaaloo ñu wax ne amana gëm nañu ne muhammad mooy yonent bi nga xam ne moom la téere yi jëkk ya bégle woon de wa ida xalaa ndem dellu na baaduhum ñana seen ilaa baadin jëm ci ñenn xaaloo ñu wax ñoom sang ya ñi naafeq soon ñeneen ña naafeq ne ato hadisoonahum bu leen solo leen bi ma fataala aleykum ci ala xamal na leen ko yàlla ci tawreet ci melo muhammad de lu yàgg-yàgg bu leen waxati julli ñu mukk li leen yàlla xamal ci melo mi ci tawreet na bu leen leen ko li yohaa jooku ngir nañu dàggee yéen ndax loolu fa leen di jox layu dëgër di ci moo wax jooju leen rabbikum fa borom seen fay tax ñoom ñu xëy leen de ci àdduna alaaxira dootu leen mën a am benn suñ bañee topp yonent bi ba noppi te nangoo saxal ne um, tawreet loolu leen waa tawreet loolu leen santoon mooy yonent bi tawreet santaane woon ne nañ ko gëm buñ ko jotee te melo yiñ ca euh, waxoon yëpp feeñ na ci yonent bi ba noppi ngeen wax ko jullit ñu dégg ko ba ngeen bañ a topp yonent ngeen bañ a gëm kon dootu leen xam aw lay jaar naa alaxira de afala taxiloona lu tere ngeen xelu ne danañ xuloog yéen dëkk na ngeen day bu leen leen waxati dara buur daal di tontu ne awalaa yaalamuuna ndax xamuñu anna naka yàlla yaalamu dana mu xam maa yusirruuna la danañu nëbb ko wa maa yu'linuuna ak la danañu feeñal ko ñoom suñ ko bañee solo suñ ko solo yépp xamuñ ne benn la xamuñ na yàlla xam na lépp lu ñu nëbb lépp luñu ñu feeñal kon nag nëbb gi dara la du jariñ de buur ne wa minhum aji nekk la ci ñoom yahud ummiyuuna way matale mooy xaam yu xamul dara laa a xamuñu alkitaaba tawreet yahud li gën a bari ci ñoom ñooy ñu xamul dara mënuñoo jàng xamuñ tus illaa lu fi nekk amaaniya ay nar li nga xam ne mooy seen xam-xam daal mooy fen yi ñuy dégg ci seen sang ya luñ leen fenal rek ñu jàpp ne loolooy diine loolu mooy xam-xam wa in hum ta déen illaa yadunnuuna ndare bu danañu jot njort dëgg de mbugal illazina war nañ ci ñooñu yaktubuuna danañu nar alkitaaba tawreet bi ay diim ci loxo seen de mbugal war na ci ñi nga xam ne dañuy sos ak seeni nar wax ne lii mooy tawreet ji bàyyi ko woon fa yàlla su ma yàquloon ñu wax ne asal li min indi laay tukki na fa yàlla li yashtaru ngir nañu jënde di ci moom sama nan jaqali leen guddi aji néew nar ya nag ñu di ko jëndee waaw njëggu néew mooy la ñuy jàpp ci seen way suufee ba nga xamee nar nañ ba nekk ay sa nga xam ñu leen topp nag di leen jox loola ñuy jël nag mooy njëg gi ñu jënde dëgg fa waylun tatak mbugal lahum war na ci ñoom bi maa katabata ca lan war na ko ay diim ay loxo seen waylun tatak mbugal lahum war na ci ñoom mi ko ci nger de ndax loolu jël dëgg-dëgg duut may waaw duut tabax de waaw nger la rek den waqaalu laa yooyu mi ngi melal waaw fóode yahood yi xam nañ xam-xam boo xam ne wét na bu leen tegtal ne yonent bi mooy yonent bi nga xam ne moom lañ ci doon ca tawreet jàng nañ tawreet gis nañ melo yonent bi ba noppi taxul ñu gëm ko loolu moo la xamal ne xam-xam ak yaqiin ak janoo sax du jariñ janoo sax du jariñ su fekkee ni jaam bi ko tawfiix de gisu nga yahood yi demoon nañ bay dégg wax yàlla ji ca mii xama ba muy wax ak Muusa foofu xanaa foofu la jege yàlla xem jëriñu leen dara taxut ñu gëm dañ wax rek ne la noomi na xata laa jaaratan la noomi na laka xata nara laa jaaratan rek lañ ca teg kéefër la leen dolli naka noona xam-xam lu mu bari bari du du maye du maye xam yàlla du maye jub du maye ak jiw lu may ba nga xamee ne yàlla boole na ca tawfiix may jàmba waaw jubal ko ci jubal ko ci la nga xam ne moo moom la bëgg de su taxutoon ak loolu kon iblis du réer su taxutoon ak loolu kon balaama ibnu baamara ak barsiisa ña seen xisa xala ñëw du réer su taxutoon ak loolu kon foo dee ñëwoon yi dëkk ak yonent bi xam ne gàddaay fekk si rek bu feeñee ñu topp ko moo leen fa taxoon ñëw waaw kon duñu réer de waaye ñoom ñëpp mujj nañ réer tawfiq yàlla moo leen moo leen moo àndul ak ñoom de yàlla ñu yàlla may tawfiq <coughs> laay ji leen na loolu laaya ji xamle na itam ne ña nga xam ne dañuy topp yàlla wala dañuy soobu ci yoon àndoo ki sëriñ di hut yoonu njub soo xamee ne sellaluñ te xam ne yàlla rek moo di seen jublu danañ mujj defe ne seen borom lañu ñu jaamu fekk jaamuwuñ seen borom dañu ngay jaamu ñeneen ñoo ñu dox seen diggante yàlla de ñu di leen tëralal leneen lu bokk dag li yàlla tëral waaw ñu di ca wéy waaye booy itam soo lëgee sang ya duñ jëriñ ña doon ña doon topp dara ña doon topp duñ jëriñ sang ya dara waxaaloo wax nañu ne ba leen yonent bi tëkkoon ak ndeyam melaw yu ngeen nekkee su ngeen ci génnu safara ngeen jëm ñu ne lan tamasanaa lakkatinu naaru safara ila ayaaman ndaray fan maa doon dañuy way néew ñu ne ko ñun duñ dem safara caayee wala boog suñ demee safara it ay guddi rek lañ fay am topp ñu génn ñeen fukki guddi yee suñ bàyyee jaamu woon yëkk wa moom rek la ñuy am ci safara su ko defee gannaaw ba ñu génn yéen ngeen wutuñu ca buur nequl waxal ñeex leen a taxastum jàpp leen indalaay fa yàlla a den kóllëre ci loolu de yàlla fasantiwut ak yéen kóllëre may leen ne du ngeen dem safara lu mooy ñeen fukki guddi kenn waxu leen ko yéen a ko waxal seen bopp falan yuxlifa laahu ba wattit yàlla xadawo dëxalam te li waroon kay mooy loolu balaa ngeen ko wax dogu ci fekk yàllaa leen ko wax de fasante jeg yéen ko lëre na du leen ci waaw xot ngeen soog ko wax waaye yàlla digu leen dara yéen ngeen dig seen bopp li ngeen dig seen bopp ngeen gëm ko ba sukkandiku ci ba bañ a topp yàlla am ba it taquluna da ngeen wax alallaay waral yàlla maa laa taalamuuna loolu xamu leen ko de da ngeen di wax waral yàlla loo xam ne xamu ko de bare aanaam dana lakk leen safara ba ngeen béel ca yéen da ngeen du ngeen dugg safara wala du ngeen ca béel li yàlla wax nag mi ngi yàlla na ne da ngeen dem safara sa ca ngeen di béel dootu leen génn mukk man kasaba ku faggu na mu sa yaatan bokkaaleeg yàlla waaxaata te léem bii ci moom xati aatuhoo ay bakkaatam maanaam mu dee ci kéefër fa ulaayika ñooyale gaay asxaabu neeri ñoo waroon bi safara um ñoom xaalis dana woy béel lañu fi aa ca woowale safara de képp koo xam ne tey weddi yàlla jimma yàlla beddee ci loolu ñooñu nañ xam ne safara lañ jëm te suñ jaxasee dugg dañ cay béel dootuñ génn ba faw yàlla nañu yàlla musal ci loolu waaye wala si na ñaaña amanoo gëm nañu wa amiloo tañu jëf saalihaati farata yaak naafilee ulaayika ñooñu le asxaabul jannati ñooy waroomi aljanna de hum ñoom xaalidoona way béel dañu fi aajo joojale aljana de nga xam ne gëm nañ yàlla te ñu jëf-jëf ji yiw mooy ñuy taxawal farata ak naafila ñooñu ñoom aljana lañ lañu xaraf te dañ cay béer duñ ca génn mukk de gis nga ñaari jumle yi xéefar yi bi mu xam ne weddi na yàlla te ay adam war ko ñooña safara lañ jëm fa ulaayika def na ci fa ay sabab ya daañ dem safara te safara sa li ko sabab mooy seen jëf yooyu ñoo jëf la leen yóbbu safara am maa ngi gëm yàlla nag tey jëf-jëf ji yiw ñooñu danañ xarafal janna defut ci faay sabab ya ndax dëgg-dëgg seen gëm yàlla ak seen jëf du ni moo leen sababal xarafal janna ak beel jaar janna de baax ak yàlla rek moo leen yóbbu aljanna moo leen may ñu beel ca ku dugg ku dem aljanna yàllaa la may ngëneelam ba nga dem ca ku dem safara itam yaa def la la yóbbu safara de yàllaa maandu ci yow waaw xisaabe la sa jëf yóbbu la safara moo tax jumla jëkk yi fa ulaayika asaabu neeri am na faa jumla ñaareel ulaayika asaabu janati kooku moom xamut faa de moom laa dis yonentu bay leeral naa kenn ci yéen du xarafal janna ci jëfam ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax ba sama yàlla muuree yërmaandeem ak ngëneelam de ay yonent bi sallallahu alayhi mën da jëf lu ko yóbbu aljana lu mooy baax yàlla ga ànd moom keneen waxi nappi ku dugg aljana na nga xam ne yàlla la baaxe rek waaw ba nga dugg aljana ku dem safara itam yàlla tooñu la de yaa def la la yóbbu safara de <coughs> ndax jëf yàlla bind jaam bi moo bind itam jëfam te yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam képp kuñ xisaab jotal sa xisaab danañ la buggal Aysata ne ko du yàlla wax na ne fa bu yuhaasabu hisaaban yasiran mu ne ko loolu du hisaab loolu xardu la dana am jaam yàlla yoo xam ne yàlla fa leen di gaaraw jëfin ci ma rek waaye du leen hisaab yàlla dafay xoo jaamam mu ñëw bu daal di ko muur kii daay lu dox diggante moom mbindeef yi kenn dootu xam luy dox diggante moom boromam mu ne ko yow sama jaam xam nga ne defoon nga nangam ci bés sangam tere naa la ko xam nga ne defoon nga nàngam ci bés sangam xam nga ne defoon nga nangam xam nga ne bàyyi nga nangam ci la war bàyyi nga nangam waxa waxa wax baagel maa la suturaaloon ci àddina waaw ba nit ñi xamuñ ko nga ne yow yàlla ni nga ma suturaale woon ci àddina ba tey ma baal mu ne baal naa la mu daal di ñu daal di ko fab rek yóbbu aljana duñu xam la dox digganteem ak boromam loolu mooy xaardu kuñ ko def mën ngaa mucc waaye koo xam nag ne dañ laa taxawal fa nga génnte ba fa génne àdduna lépp loo ma sa bàyyi ci lu la war loo ma sa def ci liñ la tere ci wax ak jëf ñu ñu la ko kooku moom mën da mucc mukk de moo tax yonent ne kenn du dugg aljana ci jëfam lu may ngëneel yàlla <coughs> lu yàlla muur la rek yàlla ñu yàlla muur ngëneelam <coughs> waskur <coughs> jàngatal is axas naa ba nu jàppee misaaxa bani israila kóllëreeg ca tawreet de yàllaa ngi nettali nag lam jaayante woon ak bani israila ca tawreet tan wax leen ne laa taabu doona bu leen jaamu ilallaa ndara yàlla lii lañ leen waxoon ne bu leen jaamu kenn lu may yàlla mi nga xam ne moo leen sàkk benn wa bil waalidayni xéwé na leen topp ak yaari wajut ixsaanan ak topp ku ci nekk nay topp yaari wajutam di leen baaxe kem kàttanam de yàlla moo la sàkk te dimbali ko wut kenn moo tax be moom nga war a jaamu te bañ koo sàkkal bokkaale gannaaw xaq yàlla nag xaq ji tegu ci baatab jaam bu ca gën a màgg mooy xaq yaari wajutam ya ko judde ndax ñoom ñaar ñooy sa sabab ak xam sababi saayir si nga xam ne xam nga ko ci àddina ñoom ñaar ñoo ciy sabab tax na ba yàlla mi la sàkk day soo ko lekk say wàjjit waaye gannaaw xaq yàlla ji wéy na xaq ju gën a màgg tegu ci kaw jaam mooy xaqi wàjjutam de na ngeen topp seeni wàjjut ba dënge wàjjut mooy bàkkaat bi gën màgg ci bàkkaat yi gannaaw kéefar gannaaw gëm ngeen seen borom éwé na leen topp ak yaari wàjjut de <clears throat> <coughs> wasil xurbee ak borom ak jegeñaale ba tey ci topp ak wàjjul la tàbbi waxuma sax nga baaxe sa baay ak sa tey waaye ñi nga xam ne ñoo ñoo leen jub nga xam ne ñoo ñoo tax ñu di say mbokk na nga baaxee ñooñu motale ko sa baaxee yaari waajur soo baaxee say wajur baaxe say jegeñaale nag wal yataame ak jidim nga baaxe jidim de jidim ci doomu aadama mooy ku bàyyam dee te géwél tëgut ndem góor ndem jigéen yonentu na ne man maa ku yar jidim nii la ñuy mel ci aljana kër ak yonentu ci aljana ak kër ku yar jidim ni ñaari baaraam ñuy mel noonu lañuy ñuy mel war nañu xamaale ci nag naka baaraam yonent ba bindoo woon baaraam yonent bii di junj tawhid moo gënoon a gudd bi ci digg bi bokkut ak ni baaraam yi ñi mel bii gudd bii topp ci na ne ni baaraamam bii sutee bii ci topp lay mel këramal këres ku gi dim noonu lay la bi sababatu la ko yaaram di wax astakat bi ndax moom lañ daa xuloolee naka ma ko waxe woon yonente ko tudde musiratu baaraam buy junj tawhid yonent bi nag baaraamu musiratu ci loxoom moo gënoon a gudd bi ci topp na ne ku yaar ji dim këram ak sa kër ni baaraamam bi sute bii rek noonu lay noonu lay mel de wal masaakin ak miskin ak miskin waqulu wax leen li naa fi ñaan mboolem nit ñi nag xus na wax ju de ak rafet de nit ku nekk wax ko wax ju rafet mooy digal ko lu baax tere ko lu ban wax ko lu dëgg ci yoonu mbiram yonent yàlla muhammad sa alayhi wa sallam wax ko itam ak jàppandi sàbbi ca nit ku nekk nga di ko xooyee turam gën a bëgg nga xooyee ko ko bañ ko xooyee tur woo xam ne waaw bëggut ko loolu yëpp xëy na sa digganteeg mbindeef yi la yooyu la ji làmboo wéetal yàlla moo jiitu lépp mooy fondement bi soo xamee ne seede nga ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah jaamu sa borom te bañ koo sakkal bokkaale loo cay baaxe sa yaari wajut de ku dënge sa yaari wajut doo texe mukk bu fekkee ni yaa ngi topp yàlla topp yàlla ak faqale yi ni sax te dee sa sa wajut gërëmu la booy doo texe ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa benn xaleel doon na xar-xarle yonent ne wax leen ko sa leen ko baatab seede bi ñu sakk ko mënu ko wax yonent ne lu xew daawul julli ñu ne daana julli bu jub ñu daawul xoor daana xoor daawul saraxe daana daana saraxe daana daawul jihaad daana jihaad topp yàlla yi nit ñi def yëpp lu ci ne lu yonent laaj rek ñu ne ko xale bi dafa ko mu ne lu tëye nag làmmiñam ñu dëkk ak moom ne ku bon ci la woon na ndeyam be ba ba ba bam ba mu patt ngi dund ñu ne waaw mu ne andil leen ma ko ñëwoo ndey ji mu ñëw mu ne sa doom na ko baal soo ko dafay dem safara mu ne na dem safara waaye duma ko baal mukk moo ma dóor ba bënn sama bët bii te maa ko jur yonent ne ko baal ko soo ko baalu day dem safara kat mu ne moom caag na dem safara yonent ne gaa ñi dem leen taxanal ma mat ñu taxan mat indi jóor mu ne jafal leen ñu jafal ba mu takk mu ne fab leen xale bi sànni ci ah mu ne sànni fab sama doom def ci safara moo taxoon ma di ko jub moo taxoon ma di ko nampal ñaare ñaare ñaare at ay yonent ne ko safara la jëm rek soo ko baalu koo nag ma dugal ko safara léegi benn yoon mu ne baal naa ko xale daal di ne laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullaah sa yaari mooy bopp topp yàlla dënge sa waajur itam mooy bàkkaar bu màgg bi gën a màgg ci bàkkaar yi gannaaw loolu nga jokk sa jegeñaale rahimu yàlla nga ko xare ci rahmaan boo jokkoo sa jegeñaale yàlla jokk la boo ko dogee yàlla dog la te topp yàlla yi nga xam ne dana seen njëriñ dana feeñ ci àddina jokk ak bokk ci la bokk nit fanam dana gàtt ba mu des ñetti fan mu jox ko bokk rek yàlla def ko ñett fukki at nit dana defee fu ñett fukki at dag ak bokk yàlla def ko muy ñetti fan mu dee dag ak bokk dafay gàttal fan ah, jokk ak bokk itam dana yokk fan jirim nag yonent na ne koo xam ne yàlla natt na la nga am ay doom yu jigéen nga yar leen ba may leen jëkkët ba nga xam ne tey eh, doylu nañ wali yow wala ñu dee daañ nekk kii daay sa diggante safara de naka noonu ko am mbokk yu jigéen nga yar leen waaw ba doylu leen ñu am jëkkët wala ñu dee naka noonu dana dox sa diggante safara de naka noonu ay jidim boo xam ne amul ku ko yar waaw nga yar ko waaw ba mën a dem ak boppam wala mu dee waaw ñooñu ay kii daay la ñuy dox diggante jaam bi waaw ak safara de miskin mu nekk nag waaw xeew na sarax mooy képp kuy laaj waaw di leen ñëw sax ci kaw fas waaw mooy lu ñuy jox aji laaj te kem kattanal koo xam ne bari lewut koo xam ne bari lewut mu def lay kem kattanam waaw jox ko miskin muy laaj loolu mooy li ci sadax wax leen nit ñëpp nag lu rafet mooy digle lu baax waaw tere lu bon de laay jooju waaw lim lambo ci makaarimul axlaaq moom lañ digaloon yahood yi ca tawret de yépp nag ñu wàcc ko <clears throat> wa moo taxawal leen salaata julli juróom wa aatoo ta ngeen joxe sakata asaka ñu ne leen itam boole leen ci dee leen julli tey génne asaka de yépp ngeen nangu su ma tawale itum topp ngeen dëdd de ngeen nangoolante koog yàlla ba noppi gannaaw ga ngeen lànk illaa qalilan daraa ji néew minkum ci yéewoon wa antum te yéen muriduna way dëdd ngeen lu ma ñu néew ci yéen ñoo ñoo ñoo matal ko léegi ñu ci des ñëpp dëdd nañ naka seen bàyyee dëddewoon yatti yëf alquran ñoom lay lëkkale faw du ci tudd kenn te tudd ka ca des moo tax duñ ci nangu benn te àndul ak ba ca des aqimu salaata waa atu zakata fu yàlla waxee ne nañ julli waxee na fa ne nañ jëne asaka moo tax ba yonent génne àddina te julli ñu ne dootuñ asaka abubakar fa takk waa xare de nekku génnewul asaka rek mu xare yow omar ne ko na ngay xare ay julli ñoo xam ne ñu ngi wax laa ilaaha illa muhammad rasulullah di taxawal julli te yonent ne woon digal nañ ma naa xeex ak nit ñi bañ wax laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah ku ko wax sange nga sa deret mu ne ko Omar jamal fale ba nga nekk xéefar di jabbaar nekk jullit ba nga nekk ki gën a nafax ci àddina fale ku xaaya asaka rek benn mburtu bu ñu doon jox yonent ku ma ko eh, jox ku ma ko xañ rek ma xeex ak yow yàlla aqimu salaata wa aatu zakaata la Omar ne ba ma gisee Abubakar nuur ca rek ma xam ne loolaay dëgg waaw ba yàlla dimbale ko de na ne doom jigéen jurut waaw doom ju gën Babacar Siddiq xanaa gannaaw yonent yi def boobu ponk bu tax dana Babacar keroog ba génne yonent génne àddina lañ koy dindi ci diine ji moom nopp noppalu ci julli mën da tàggoog asaka topp yàlla mën da tàggoog topp sa wajut fu yàlla wax ne laa tabudo ilaa yaaw wa bil waalidayni ihsaanan la cay teg kenn du mën a topp yàlla te jubaloo say wajut sant an uskur lii wa li waalidayka yàlla fa ne na ngeen ma sant te sant seeni waajur aqimu salaata wa aatu zakaata atiu wa atiu kenn mën da topp yàlla te topp yonantu ku yàlla tudd topp yàlla dana fa teg topp yonantu ku tudd julli dana fa tudd asaka boobu ne sant leen ma na ne sant leen ma te sant seeni waajur de xaqi waajur nag ju ndey moo gën a diis ju bàyyi topp ca ndax dañoo laaj yonent benn saaba na ne ko ku gën a xëy ci sama mbaax mu ne ko sa yaay mu ne ko ku ca topp mu ne sa yaay mu ne ku ca topp mu ne sa baay kon nag def na mbaax gi ñetti xaaj ñaar ñu ndey jee ko moom benn bi la baay bi moom ndax ñoom ñépp ñoo jur doom ji waaye coono bi ci ndey ji toggoo baay bi toggoowu ci lu ne day de benn baay mas nay xulóog jabaram ndey ji ne ko sama doom mu ne ko ëmb naa ko lu jiitu ba nga koy ëmb doom bi muy demat ci biiram ndeyam mu ngi nekkoon ci gannaaw baayam naka ko yàlla mu ne ko ëmb naa ko jamono ji yàgg yow nga soog ko ëmb wasin naa ko yow nga soog ko wasin loolu doy ci sama doom maa moom sama doom ndey ji ne wax nga dëgg de waaye yow ba nga koy ëmb amuloo ci wenn diis yëguloo ci benn feebar man ba ma koy ëmb waaw dafa diis di fitna ci man mënu naa yóbbu sama bakkan ba nga koy wasin itam mooy ba muy wax génne man ñu ma yow ba nga koy wasin dafa neex man bi ma koy wasin xaw naa ñu bi àllaaxira de waaw boo nag sama àq wax na dëgg waskur naa ba nu jàppee misaaxakum kolore seen dañ wax ne laa tasfikoona bu leen tuur dimaakum ay deret seen ba yàlla fasante kolore ak bani israilaati ne leen bu kenn tuur sa dami morom maanaam ñenn bu ñu rey ñenn ñi wala tuxrijoona bu leen génnee am fasakum ay bopp seen min diyaarikum tukki ci kër seen te bul génne sa bopp sa kër bul génne sa bopp sa kër mooy bul jéem a génne nit këram soo bëggee génne nit mu bëgg laa génne sa kër kon mu ngi mel ni yaa génne sa bopp sa kër su ma aqrartum topp ngeen nangu kóllëre googu yëpp ngeen nangu lante ko yàlla wa antum te yéen tashhaduuna da ngeen seede waral seen bopp ne nangu ngeen su ma antum topp yéen haawulaay yéen ñi le taqtuluuna da ngeen rey anfusakum ay bopp seen rey seen bopp gañ leen aayoon tàmbali ngeen ko yéen a ngi reyante wa tuxrijuuna da ngeen génnee fariqan kuré minkum ci yéen min diyaarihim ñu tukkee ci kër seen te ñenn ñaa ngi jéem a génn ñenn ñi waaw ci seen i kër tasaharuna mbir moom da ngeen dimbalante alayhim ci ñoom bi def na ci mooy yàlla wala du waanee ak tooñ ngeen di dimbalante waaw ak ak tooñ bëgg a xeex ak seen i morom génne leen seen i kër waxu wata moom ca kanam waxu taqdima taaxira ne foofu waxu wata moom mbir mi waxu wata luy mbid ak mbid muharramun luñ xaraamal la aleykum ci yéen ixraajuhum ak génne si yéen te génne gi ngeen di génne seen mbokk yooyu yàlla xaraamalaat na ko ci tawreet wa in yaatookum te ndem dikkal na leen usaara ay jarjar tufaadoohum ngeen jot leen te suñ xamee ay jarjar yi njàpp ci seen mbokk yi ngeen di xeexat ngeen jot leen ci seen xalal kooku xisa la boo xam ne mi ngi gaaral bani Quraysata ak bani Nadir bani Quraysata ak bani Nadir yaari gii di yëwoot lañu yu gàddaayoon Saam ñëw Madina ne ñu ngi koy fekk si feeñ ak yonentu bañ gëm ko di ñu torox nag yëwoot naka jëkk yàlla fa leen sadd toroxte ak ak miskin bañ ñëwee Madina fekk fa yaari giit Laws ak Xasraj ñi nga xam ne ñoo mujj di leen faar Banu Quraysata bootu ci Laws nekk seeni xulafaaw banu nadir bootu ci xasraj nekk seeni xulafaaw te banu quraysata ah, te law sax xasraj nag kéefari jaahiliya yi la ñoo xam ne yàlla ma na yónni ci ñoom benn yonent xeex nañ téeméeri at ak ñaar fukk yonent soo ko ñëw Madina ñu jébbalu ci moom ñoom ñëpp mujj nag nekk benn kuréel ñooy lansaar kenn dootu wax law sax xasraj lansaar rek lañ leen di wax waaye lu jiitu dikk ak yonent xeex rek lañ dëkkee woon bu law sa di xeex ak xasraj te banu Qurayza dañu ngi ànd ak law sa banu Nadir dem ànd ak xasraj ah banu Qurayza daal di ànd ak law sa dem di xeex ak xasraj ak seen mbokk banu Nadir banu Nadir itam di xeex ak ah, laws ak seen mbokk yi banu Qurayza xët nañ sàtt xaat tawreet noonu leen bu leen xeex bu kenn ci yéen rey morom ma léegi ñoomu neen ñi ngi reyante diñ toppee ñaari kuréel yooyu nga xam ne jaahiliya rek lañ ñoom xamuñ dara ci benn diine ñoom borom xam-xam yi jàpp ci diine ji nga xam ne mooy diine Muusaa nag ñu ngi xeexoo ngir waaw ñoo ku ne daal yaa ngay dimbale ka nga faral parti ak farfarloo taasub waaw cot cotloo waaw mooy yóbbu nit ci ndëng gu nekk suñ leen waaw suñ xeexee suñ jàppee ku bokk ci bani Nadir indi ko fi ci law sa banu Qurayza di boole seen alal jot ko bàyyi ko mu dem suñ jàppee ci xoreesata kenn yóbbu ko ca waaw xas rek banu nadir ya fa nekk dajale seen xaral jot ko mu bàyyi ko mu dem ñu ne waaw yéen yéen a ngi xeex ak seen i noonu lu ba te kuñ ci jàpp ngeen jot ko ñu ne jot gi yàlla ñu ko digaloon ca tawreet waaw lu tax ngeen di xeex ak ñoom it ñu ne suñ xeexut ak ñoom suñ xar yi dañuy daanu te suñ daanoo ñu itam ñu daanu ñiñ farat daal waaw foog ñu dimbali leen ndax buñ toroxee ñu torox loolu moo tax ñuy waaye daal mënuñ leen a ñàkk jot ndax loolu la ñuy tawreet digaloon moom na leen yàlla wax nag naa leen yàlla na leen xare xaaye leen génne xentey kët tontu leen itam ku fekk sa mbokk mu ñu jàpp na ko jot yéen nag yéen a ngi xare yéen a ngi génne kët te ku jàpp ngeen di ko jéem a jot afa tuuminuuna ndax da ngeen dëggal bi baadil kitaab bi ci leen i tawreet kii njot bi wa takfuruuna te ngeen di weddi bi baadin ci leen li ndax ngeen a gëm ngeen war ak tawreet weddi gi ci def ray gi ak génne gi ak dimbalante ci xeex ak sa mbokk loolu tawreet xaaye na ko loolu moom yéen a koy def njot gi rek ngeen nangoo def ci la tawra digle woon fa maa jasaa man yafalu déet pay ka dana mu def dalika loolee minkum ci yéen ilaa xisin dara toroxte fi laa ci dundee ci dundal àdduna bi de ne leen képp ku ci def loolu nag da nga torox fii ci àddina moo tax ba torox nañ waaw ba nga xam ne yonent bàyyi ko na xam ndax ñoo rek bani Qurayza te joxe ndigal ñu leen ñoom ñëpp dàq bani Nadir bañ leen dàqee jaral na ñu dem saam dàqoon nañ leen ñu dem xaybar gannaaw ga ñu dem saam gannaaw ga nag la leen si dina Omar génne waaw jaziratul arab yëpp de ñu sotti ci ñoom garag itam ba pencam yàlla wa yawmal qiyaamati ca bés penc yu raddoona def na delloo leen ilaa sadil asaabi ñu gay jëm ca gën ca tati mbugal de wa ma laaw déet buur bi xaafilin mu aji bayi am naa yaamaroona ci la danañ jëf ko de yàlla du bàyyi dara ci seen i jëf te dana leen ko fay de xisa banoo ko waaw xore sata ak gëm leen téere bi bàyyi leen téere bi laay ju wàcc ca alquran di yedd yahood ak nasara ma ngay diri sa banam ci leen jullit yi itam de ulaayika ñeere gaay alladina ñoo di ñaaña istaraw jënde nañu alxayaata dunya dunda ba dina bil axirati ci alaxira de yooyu yëpp la leen ko teg nag mooy bëgg àddina dañoo bëgg àddina ba tànn àddina wacca alaxira da mel na ni alaxira lañ fab jaay ko jënde àddina walaa yo xa foofu sawaso deful ci ñoom ala sa bum bugal ma wala um deen ñoom yun soloona defi tere leen bugalam yàlla def wala xalaatee naa nun tey jox nañu Muusa Muusa alkitaaba tawreet yàlla wàcc na tawreet ci yonent yàlla Muusa wa qaffay naa tan tofal min bari ca gannaawam bi rusuli ci yonent ya gannaaw bu Muusa wéyee yàlla tofal ko ay yonent yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi topp ci tariatam di jëfee di jëfee tawreet topp gi maanaam ñu topp ko ci di jëfe tawreet ku ci nekk nag yàlla fa ko doon ubbil xam-xam waaw bu dëppoog diine ñooñ jamonoom mu di ko jële ci tawreet muy Yoosa ibnu Nuun ak Kaala ibnu Yoofana waa ak Daawuda ak Suleymaan ba ci Iisaa Isa soo ko beneen téere de waaye yonent yi nga xam ne ñoo ñëw gannaaw Muusa lu jëkk Isa ñu ne juróom-ñaar fukk ak junne lañ ci yonent ñoom ñëpp ci tawreet rek lañ doon jaamu yàlla de loolu nit ki nga xam ne xeetu yonent ñu ngi jaamu yàlla ci alquran moo tax yonent ne ulama ummati ka ambiyaay bani israila de borom xam-xam yi ci xeetu yonent ñu ngi taxaw taxawaayab ambiyaaw bani israila de ñu tofal ñu tofal leen yonent gannaaw yonent ñu tofal leen ñuy ay yonent yoo xam ne dañuy jëfe tawreet de moo tax lu doon lu doon sawaab jalaal bañ a firee nim firee de rasulin fi asari rasulin wa aatay naa tan jox xeesa xeesa ibna mariama kay doomi mariama albayinaati kéemtaan ya yonent yàlla isa ñëw gannaaw ganag gannaaw ju neyaat yàlla jox ko ay xar baax de muy dundal ko ñu dee di wéral ku juddaale kilmaxa ak koo xam dafa amee baras wa ayat naaw tanu dëgëral ko biroowil qudusi ca raw bu sell ga kii jibril de yàlla dëgëral ko fu mu dox mu ngi ànd ak jibril waaw moo tax mbiram yépp jub bi mu ne wa xafay naa min baadi bi rusuli Iisaa tàbbi woon na ci soo gisee ñu jagle ko awtut ngir moom dafa dikke beneen sariyaatu bu yees boo xam ne folli na lu bëri ci li tawreet indi woon ak itam tudd nañ ko ngir yëkkati ko ndax yahood dañ koo xas xas yaayam ne yaayam Mariam dafa mooy yàlla xeesaa du doon yoon te fekk loola dara du ca dëgg Mariam num firi jaa liggéeykatam yàlla boo xam ne dafa sib dafa sib gisee góor moom ba mu juddoo da am fukki ak ñett gént bëtam rek mosu koo teg ci góor lu mooy Sakariya am nga xam ne mooy denc nday taxam xarmanteem la yar ko mës na gis góor ak bëtam waxuma di waxante góor mu gis baax jigéen naka ko jigéen ñi gisee génn ba mu ba mu laabee dem di sangu rek foofa la ko Jibril feeñu mu ne ko bu ma jegee dem góor nga man bu ma gis góor mu ne ko yàlla ma yónni pour may la doom mu ne doom maanaam xaw ma jëkkat dafa su ma am jëkkat te duma mooy yàlla fu may jële doom mu nekk loolu la yàlla wax daal di wal ca baatam mbubbam rek mu daal di xam daal di wasin ca ba mu ñibbi si jógee fa mu sangoo jiwoon daal mi ngi gàddu doomam mu yeey saa mu ñëw cëppeel ko fa kanam nit ña ñu ne ah Mariama di ke nga mbir de yow sa nday daawun jaaloo sa nday daawun jaaloo moo foofu jële doom ju amut bàyyi nag xanaa wax nañ ko lépp mu joxoñ xale ba de ne man du ma wax laaj leen xale bi ñu ne xale bu juddu kenn faragu ko nañ koy laajee mu ne laaj leen ko Isa daal di jóg taxaw joxoñ leen ne inni abdullahi ateni yal kitaaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan ayna ma kuntu wa awsaani bi salaati wa zakaati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan wa salaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uxasu ayyan de daal di wax loolu ba na fi di nekk ko far doom jooju di naka lay juddu ku xopp rek bu ko tegee loxo mu wér ku silmaxa bu la tegee loxo ci say bët nga wér ku dee sax buñ ko ko waxee rek mu dekkal ko ñu ne ah ñu dee bu xees rek la mën a dekkal waaye ku dee bu yàgg de du ci mën dara ñu ne ko balaa ñoo gëm ne mën ngaa dekkal ku dee nga dekkal saam yi mu nooyin ki nga xam ne ba mu dee léegi mat na ñeenti junni at mu ne wan leen woon bameel ba ñu wan ko bameel saam yi mu nooyin mu xoo ko rek mu daal di jóg ñu naa dekkal ku dee lu firi ci làkku hebraan kuñ barkeel wa ayat na tan dëgëral ko bi ruuhil qudusi ca roogu sell ga jibril afa kullama jaakum ab bépp bu dikkalee leen rasulun kum yónni bi maa laa taxawaa ca la sopput ko anfusukum ay bakkan seen istakbartum ngeen rëylu bañ koo topp moo lii ngeen bëgg a def seen aada yonent bu yàlla yónni su fekkee dëpp wut ak seen bànneex rek ngeen lànk ne du ngeen ko topp fa kasabtum weddi ngeen fariqan ku ne ci ñoom am na ci yonent yoo xam ne da ngeen a weddi ni ki Iisaa munuñ ko rey waaye weddi nañ ko ne nañ sax rey nañ ko wa taqtuluuna da ngeen di rey fariqan kuré ay kuré waaw ci ñoom ñoom da ngeen leen a rey ni ci Sakariya ak Yaaya wa qaaloo tañ wax ñeel yonent bi ñoom yahudi bani Qurayza ak Nadiir ñu jamonoon te yonent ba ñu ne yonent bi quluubunaa ay xol sunu xulfun way muuru ñun nga ngay wax dégguñ ci dara suñ xol yi dafa muur ba mënuñoo dégg li ne bal bayit laanamu laaw soril na leen buur ba yermandeem di ko friim ca solo si weddi seen nga rek déedéet seen i xol mu ruur rek xam ca yàllaa leen daq wocc leen ba nga xam ne yermande yàlla du àgg ci ñoom de moo tax lépp luy maaye yermande yàlla ñoom mënuñ ko nangu mënuñ koo jege de fay fa xali leen gëm guddi aji néew maaye wu leen a rek wala ma jaahum ba di leen kitaabun téere min indi laay bu tukke fa yàlla musaddiqun bu dee aji dëggal li ma maam laa dama ñoom ci tawreet ta téere bi mooy alquran ta nekkoon nañu min qablu ca jëkk dikk ak alquran yastatiyoona di jimbandiku alal si na ci ñaane kafaro wedd nañu waa te lu jiitu dikk ak alquran nag suñ daa xare dañ daa ñaan yàlla dimbali leen ci barke bi yonent bés bu nga xamee ne xore sa daag na biir ñu ngi ànd ak law sa xasra ji xeer bu xare tàngaa alayhim bi nabiyin ma boo fi axira samaane yàlla nañu yàlla dimbale ci barke bi yonent bi yàlla fa soo yónni ci Medina gi lé ci mujj ak jamono wala maa jaahum ba dikkale leen maa arafoo la ñu xam kafaroo ñu weddi ko kafaroo ñu weddi bi ci moom de yonent boobu ñu xamoon waaw lu jiitu ak dikkam bat moo leen tax a saam ñëw Madina bañ ko gisee rek ñu ñu ñu weddi ko de ngir xañaan ak ragal seen càng gërë ci leen ragal lañ daal nekkoon ñu ñuy topp gannaaw ga soppeeku nekk ay toppekat yàlla yónni yonent boo xam ne ci arab la bokk te ñoom yahud ñoo jëkkoon da nekk ay yonent yonent yi gën a bari ci ñoom la woon ba defe nañ ne ak yonent ñoom rek ko xeloo yaaram mas daa am ab yonent ñu ne Muhammad ñii di yonent yaaram waaw loolu du fi am fett nañu ngir kañaan rek walaa natu ndaaye soril buur ba yërmandeem alal kaafiriina war na ca way weddi ña de daal yàlla rëbb na ko yàlla du jëkki di rëbb rëbb mooy moodu rek waaw yàlla moom ku mu bëgg a rëbb daf lay fari yéeg naan dem rek mu jeex waaye du jëkki sax di ci rëbbante de waaye ñoom ñooñu nga xam ne xamoon nañu dëkk bu yonent bi ba noppi yonent bi dëkk dikk kañaan ak bëgg a kañ rek tax ñu bañ ko topp ma ne yàlla sori na de yërmaandeem de rëbb war na ci ñoom de fii sa bon na maa ci la istaraw lu ñu jaay bii ci moom am sa samay bopp seen de jaay nañ seen bopp jënde ko njëg boo xam ne jaru ko de an yakfuroo ak weddi seen bi ma anzalallaahu ca wàcc na ko yàlla de weddi gi ñu weddi alquran te xam xel ne dëgg la ngir yi ñuy jàppe ci ñi leen di topp rek waaw ñu weccee ko loolu xam nañ ne jaay nañ seen seen te jënd nañ loo xam ne jarul de rëbb ngoog kenn war da rëbb jëmm lu may mu hóor la ne kéefër la te dee na ci kéefër lu ko mooy rek xatar la ndax soo rëbbee ni bu xeyoo rëbb rëbb ma wéy moom waaye su ko xeyoo rëbb ma dafay dellu si ci yow mi nga xam ne yaa rëbb de kon nag mënuñoo xam ko yàlla am rëbb lu may koo xam ne wóor nañu ne dee na ci kéefar nit sañ naa wax ne yal na yàlla rëbb Firawna yal na yàlla rëbb Abu Jahl ibnu Hisaam ñooñu nga xam ne dee nañ ci kéefar nit mën na leen rëbb dara néew waaye lu dul loolu nag rëbb jëmm joo xamul ci kéefar lay dee am déet bu dee xeefar léegi sax mën naa am xamu na luy mu jëm loolu moom xatar moo gën a mucc wala soo mën la ñàkk rëbb nga rëbb ci melo de soo ne rahmatullahi alal kaafiriina ni ki alquran wax yal na yàlla rëbb xéefar yi yàlla rëbb yahood yal na yàlla rëbb nasara yal yàlla rëbb faasiqiina yal na yàlla rëbb waaw moykati yàlla yal yàlla rëbb rëbb ci melo daal moom benn xata nekku ca waaye su fekkee ni jaga jaat ci jëmm te xóolu la ne ci kéefar lay dee rek jooju googu rëbb moom waaw xatara nga leen benn foo jenn fóode xale ba daf ko laaj ne la wax ci mooy aw yeta ko dara ndax saaba si yonent la fóode it dañuy rëbb yet yi kooku moom xeewanam rëbb maa am sa tukk yasid mi nga xam ne moo reyloo Xasan ak Xuseynu fóode ci lañ sukkandiku ba ne yasid moom xeefar la yasid mu aw yetam ma la xonoon kooku moom foo mu xaqiqi na dajalañ ci benn xaleel nag dafa laaj benn fóode ju sàmm ne ko loo wax ci Muawiyatu mu ne ko dara mu ne ko loo wax ci Yasid mu ne ko dama koy rëbb mu ne ko loo wax ci képp ku sopp Yasid mu ne ko ma rëbb ko ànd ak moom mu ne ko ndax defe woon ne Muawiyatu na doomam ji mu ne xale boobu rek ma sa gag mu ne xawma lu ma jee teg fa laanatullaahi faril buur ba yermandeem alal kafirina war na ca weer yi ñëre bii sa bon na ma ci la istaraw lu ñu jëndee bii ci moom an fa samay bopp seen an yàgg foro bu ñu weddi at waaw bi ma an sa laaw ci la wàcce na ko yàlla bax yan ngir gaañaan an yu na si la laaw ci bu wasalat yàlla min fas yi ci wayom nga alaamane saaw ci ku mu soob añaan nañ rek yàlla yónni na yonent boo xam ne yaaram la bokkut ci bani israil mi ne baat yi ci jaamam fa baawoo sabab soosa la dellu bi xadabin ci mbugal mu tukke fa yàlla ala xadabin ci mbugal ci kaw mbugal lañu xeeyoo mbugal mu jëkk ma mooy weddi gañ weddi li yàlla wàcce waaw mbugalam ñaareel ma mooy weddi gañ weddi Isaa itam de gannaaw gannaaw bu ñu gëmoon tawreet Isaa dafa ñëw ñu weddi ko yonent bi ñëw ñu weddi ko de walil kaafiriina war na ca way weddi ña asaabun mbugal muhin mu di borom ak dooda leen de wa izaa qiila ndem waxeef na lahum ñee leen aaminoo gëm leen bi ma anzala Allaahu ci la wasal na ko yàlla kii alquran xaaloo ñu wax ne noominu nun day danañu gëm bi maa unsila la wasaleer ale naa ci nun kii tawreet de ñun tawreet rek lañ mën a gëm moom mi wàcc ci ñun de buur ne wayak furoona te danañ weddi bi maa wara wayak furoona mbit moom danañu weddi bi maa wara budul moom daañ gëm téere bi wàcc ci ñoom ba noppi weddi beneen budul moom ñu ne ñun tawreet rek woowu wata moom alaaqu moom mooy de aji dëggu musaddiqan bi mu aji dëggal limaa maahum la moom ñoom ñu ne ñun tawreet rek la ñuy gëm de yàlla di daggeek ñoom nag wan leen ne gëmuñ tawreet ki ñuy wax nequl waxal fali ma ngir lan taqtuluuna ngeen rey am bi ala yonent yàlla ya min xabli ci jëkk in kuntum dem nekk ngeen moom mu'miniina di way gëm ndem tawreet ngeen gëm nag ay janañ dem ci tawreet tawreet xaayoon na rey ba sakka bakkanab yonent rey ngeen juróom-ñaar fukki yonent ci benn bëccëg waaw maaw yi daje ba man ñetti téeméer ñëw di leen xaaye ngeen boole leen rey ba noppi taxaw te tëdewul ngeen taxawal seen jay seen jabe ci bis booba googu gëm tawreet nag naka la demee tawreet xaaye na loolu wala xad ko dikkal na leen Muusa Muusa bil bayinaati ci kaawtee fam yi juróom-ñenant yonent yàlla Muusa indi na kaawtee fi juróom-ñenant xal si naa ñëw ca saaru laaraaf incha allah mooy xet waa ak loxo la ak toj ak géej ga ak yaxand ak moom su ma taxa suñ topp ngeen jàpp alxej ji la yëkk wa muy yàlla min baadi yi ci gannaawam ba muusaa demee di waxee yàlla indi leen xar baax yi nga xam ne moom la feeñal yépp la ngeen ca teg mooy dem di jaamu yëkk bañ a jaamu yàlla ndax loolu it gëm tawreet la wa antum te yéen zalimuna way tooñ ngeen tëral ngeen la fudut baramam waskur jàngatar isaa xas naa ba nu jàppee misaaqakum kóllëre seen ci jëfe tawreet bu leen fàtte ne bañ leen indilee tawreet ngeen seet toggee fi jëne da ngeen ne diis na yéen a lànk wala faa naa tan ko fawqakum ca kaw seen toora doj wa yàlla xebal jibril mu buddi jabalu tóor tiimale leen ko ne su ngeen na nangu li tawreet santaane rek ma daane ko ci seen ko ngeen soog a nangu mosoo jàppaleen leen maa ate naakum lanu jox leen bi quwwatin ànd ak ma wasma'u dégg leen la def na digal leen ko dégg ak nangu xaaloo ñu wax ne sami'naa dégg nañu wa ata'naa te mooy nañu sa ndigal ñu ne dégg nañu waaye lànk nañ wa usribu wa ta jaxaseef fi quluubihim ci xol seen alee ji la cofeel ak yëkk wa seen xolee jaxasoo naag jaamu yëkk booba bi kufriin ci sabab si kéefar seen yéen ngeen ne du ngeen gëm alxuraan tawreet ngeen di gëm di yëpp noonu ngeen di gëmee tawreet rey yonent yi Moussa joxe ndigal ngeen lànk Tawreet joxe ndigal ngeen lànk janu Moussa ne ko dégg nañ sa ndi dégg nañ say wax waaye mooy nañ sa ndigal noonu ngeen di gëmee Tawreet kul waxal ne bii sa bon na maa ci lëf yaamurukum dana digal leen bii ci moom kum gëm seen Tawreet de in kuntum dem nekk ngeen moom i ne di woy gëm Tawreet su fekkee Tawreet rek ngeen di gëm ah seen gëm gi ngeen gëm Tawreet day lëm leen digal moo bon maanaam xëy na war na leen nag dañoo gëmu tawreet rek moo tax gëmuñu alxuraan de suñ gëmoon tawreet waaw kon ñu gëm kon ñu gëm alxuraan de waaye gëmuñ tawreet <coughs> yonentu sallallahu alayhi <coughs> dugg ci lislaam gëm yàlla dafa bokkoon ci jàmbaari yaaram yi nga xam ne ku jàmbaar la woon joo xam ne daal ku métti waaw ay tabbi waaye digganteem ak jullit ñi la woon yonent di mébét nag mu nekk jullit genn suba muy julli fajar rek jibril ne ko di yeetul kalbi ngi ñëw te dafay dugg si ci lislaam yonent wax ko saaba yi ne leen di yeetul kalbi dana ñëw léegi dafay jébbalu si saaba yëpp ñëkkal kanam ndax niñ ko bañewoon ak lu bon lim leen daa def ba di yeete ñëwee ba jege rek yonentu bugg wax saaba yi ne leen bu leen ko won genn kanam te it bugg mu agsi ñi di ko won kanam gu ñagas muy tayal ci solo lislaam yonentu ba mu jubee jataay ba rek yonentu ñor yi làmbaayam bi mu tegoo woon lal ko ne ko di yeete ñëwal toog fii mu daal di ñëw fab làmbaayam yonentu ba fóon ko waaw taf ci xolam ne kawteef yi jikko ko tedd wax ma rek luy lislaam yonent ne ko waxal laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah daal di daanu ci suuf di jooy di jooy di jooy ba mu yàgg yonent ne ko looy jooy yow koy santal yàlla nekkoon nga di xéefër léegi yàlla jubal na la yaa ngi ci lislaam lan ngay jooy mu ne ko dama fàttaliku lu ma defoon yaakaar naa ne yàlla duma ko baal nang ma waxal lu may def rek ba yàlla baal ma loolu su ne ma rey sama bopp ma rey sama bopp su ne ma génn ci sama mbooleem xalal danaa génn ci sama mbooleem xalal rek ndax yàlla baal ma sama jëf jooyu de yonent ne ko jëf ji lan la mu ne ko dama doon buur ma doon rëylu xam sama doom ba noppi muy nekk jabar yi geneen góor jur naa juróom-ñaar fukki doomu jigéen ku ci ne bu ma tee sëy rek ma rey ko sama doom yooyu ma doon rey laa bëgg nga laajal ma sa borom lu may mën a def rek ba mu baal ma ko def yonent daal di gàgg moom itam ne ah loolu day for na lool ba jibil wàcc ne ko waxal di yeetal kan bi ne ko ba mu waxee ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah la ko yàlla baal bakkaatab juróom benn fukki at yi mu dundoon ci kéefër ak ñaaw téef yi mu doon def yépp ba muy nekk kéefër lépp yàlla baal na ko ko naka lay def ba du ko baalaale rey gi mu doon rey doomam yi yonent wax ko ko ne ko yàlla baal na la lépp lislaam dagg na lépp lu ko jiit woon dara topp la léegi ci bàkkaar yaa nga mën na la sa ndey jure woon saaba yi ne yonent bi loolu pour di yeetu rek la wala pour ñëpp yonent ne dee pour ñëpp la lislaam dagg na lépp lu ko jëkkoon naka tuub moom it dagg na lépp lu ko jëkkoon lu bon moom du topp kenn booy bàyyi rek mu bàyyi kul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa ndem nekk na lakum ñaa leen daaru kët ga laaxiratu ga di aljana xaalisatan di aji jagoo xendalaay fa yàlla ci yéen min dooni naasi walis nit ñi ngeen wax yow ne waay ñun ñoo jagoo aljana waay ñun ñooy doomi Ibrahima Ibrahima xaritu yàlla ñun ñooy doomi Hoseyr Hoseyr doomi yàlla waaye kenn du dem aljana lu mooy ñun yàlla ne su fekkee ni yéen a moom aljana ni ci ngeen ko waxee. parce que man naw mi def leen al mawta dem nekk ngeen saara dana ñëwee dëggal de kon nag nëgët leen dee ndax ku moom aljana ak na aljana neexee war nga caa kam cee dem rek benn yoon rek nga taxaw ne bëgg naa dee buur ne wala ñu taman léeg-léeg suñu ko abadan ba tepp dinaa xaddamata gisal na gisal na ko ay di may loxo seen ci jéem rek ma yàlla de duñ ko lëgët nit de doo dégg nit da wër bu ne ma ngi leen di wala yàlla alimu aji xam na moom bisaali ne ko dina rek rek dina rek fay def wala tajidannahum wallahi xam ngaa fekk leen ñoom yow axrasa naasi xanaa ci ci biir léegi da nga fekk yéefaru yëpp ñëwoo te ci dana ko ci juddu fan de moom yàlla dina ñëw dana xel ñaaña parce que boobu kan mooy de yéefaru yaaram sax ñëwoo te lañ gën a bëgg a dundee ndax ñoom xam nañ seen dekk xam nañ safara xam nañ seen jëf xam nañ jëf ñu leen dem safara yéefaru yaaram ñoom ay jaay lañu amul dara sax na de waa gis yow ñu xam nga mu amul dëgg sax na ñu gën a gën a gën a mën a juddu fan de yow di gën a mébét ah bi ñu kenn ci ñoom law ya'maru ak dundam alfa sanatin ci ñëpp yàdde ñëwoon boo gis bu sañoon dina dund junne at waaw buy dee fa nga dee rek waaw waaye bi kenn ci ñoom di mu fas yéene di aji sarilam mais asaabi ci ay yoo xam mara at dina dem waaye amul ci kenn koo xam ne dund ci guddi dina dox diggante ma mbugal mu ci waaye gudd fan ak lu mu gàtt fan yëpp a yem mu ci jaaree safara la jëm de wallaahi ba si noonu xam ne moom naa yàlla na ci la dama def naa leen dafay rek pour man kaana aduwal li jibril ak kooku lu ko wasan wàcc na ci ibnu suriya kenn jigéen boo la bokkoon dafa ñëwoon ci yéen bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama am ay laaj ma lay laaj te tawreet noonu na yonent bi ñëw ji mu jël jamono rek a koy mën a tontu yonent bi ko laajal mu ne ko naka ngay nelawee yonent bi ne ko sama ñaari bët dinañ nelaw sama xol du nelaw mu ne ko wax nga dëgg la ko tawreet wax noonu la tawreet waxoon mu ne ko waaw lu tax doom ay jamono mu ñëw ñu di baayam ak ay bay taxam doo ca gis dara lu ñuy du kër ñu ngi doom ji ñëw niru ndeyam ak kër ay na jaayam ba benn waaw luy niru kër baayam di ca nekk luy waral loolu yonent ne ko suñuy booloo képp ku jëkk a wasal ci mujj a wasal ndoxam féete kaw kooku la jël niroo mu ne ko wax nga ne ko waaw ban ñam la yàqoo ba xaraamaloon ci boppam yonent ne yéen mboolem yahood maa ngi leen di génnoo ci yàlla ci wàcce tawreet ci Muusaa sa leen tax nga musal leen ci Firawna ndax xam ngeen ne Yaqooba dafa woppoon wopp ji métti ba bëgg a dee mu ngi ne su ma yàlla saafaraa ci sama wopp jile yàpp wi ma gën a bëgg ci yàpp mooy yàpp gëlëm danaa ko bàyyi dootuma ko lekk soow bi ma gën a bëgg ci soow mooy soowam gëlëm dootuma ko naan yàlla saafara ko mu mu wéy seen jooja loolu tax mu bañ a lekk yàpp gërëm ak soowam gërëm yéen ngeen topp ñu ne ci diine Ibrahima la bokk ñu ne ko wax nga dëgg waaw ana lu yàlla ganale jullit ñi buñ demee aljana saaba gi mu leen di jëkka lal lalal yonent ne leen refu refu jën li nga xam ne nu suuf nga sóor yaa ko wax nga dëgg des na nag lenn ban malaaka mooy wàcce ci yow wayu bi yonent ko jibril accam loolu yàq na yëpp nag jibril moom mooy suñ noon ñun duñ gëm diine joo xam ne jibril la ko indi mukk suñ noon la Omar ibn Xattaab ne leen kañ la noona gi tàmbali ñu ne ko ba nga xamee ne moom lañ bay ci benn xaleel juddu ñu ne ñu kii moo fa soo rappal seen nguur ñu bëgg ko rey Jibril xaat ko nañu bu leen ko rey soppe ko waaye nañu kii bu fekkee ni yàlla dogal na moo fa soo rappal Baytul Maqdis du ngeen ko mën a rey su fekkee du moom nag bu leen bu leen tooñ jàmbur ba tax ñu bàyyi ko ba mu màggee mooy buxtu nasar ñëw rappal Baytul Baytul Maqdis ci ñun waaw yàq suñu nguur ci lañ jëlee torox taana ji ñu nekkee ba léegi waaw loolu lañ bañee Jibril Omar ne leen waaw Jibril nam demee ci yàlla mu ne leen waaw kañ ngeen bëgg rek ñu ne ko Mikaayil mooy suñu xarit Mikaayil ci li wërtal waaw kay kooku ne bu fekkee ni mooy indi alxuraan daal ñun pare nañ pour gëm waaye bu dee Jibril tey jëm leen bu ngeen xam Omar ne leen Jibril ak Mikaayil nañ mel ci yàlla ñu ne ko Jibril moo ne ci lay yoral yàlla Mikaayil moo ne ci càmmoñal yàlla Omar ne su fekkee noonu la demee ku nekk noonu ab Jibril nekk noonu ab Mikaayil nekk nekk noonu ab yàlla itam laay ja daal di wàcc rek dëggal li nga xam ne Omar wax na ko Omar am na fukki yëpp ak benn yoo xam ne lu ci ne daf ko wax rek ay ñëw dëggal ko ñu ne daal ñoom Jibril lay seen noonu wala moo indi alquran ñoom bëgguñu buur ne xul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa ne man kaana ku nekk noonu addu woon di noon li jibril la ñeel jibril na dee ak meram de ne leen koo xam ne da nooru jibril na nga dee ak sa mer sa sa sa mer du faju mukk de fay nawo naka moom jibril na solo wàcc na ma ko ala xat bi ta jëppal sa di ci saay ci ndigalal yàlla jibril de mooy xala indi alquran ci di ko wàcce ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalal yàlla mu alquran bi ñu waa ji dëggal li ma bay na yaa dayee la nekkoon ci jëkkam fii téere o danta di mu jub dugal ci réer o bu saata di dëggal li moom ñee way gëm ñi daal di indi nag yu dëgg waxe Omar man kaana ku nekk na mu addu wan di noon li laay ñeel yàlla dañ ne woon noonu jibril lañ yàlla ne ku nekk di noonu yàlla di noonu jibril daal di nekk noonu yàlla wa malaayikati yi ak i malaakaam nekk noonu malaaka yëpp wa rusuli yi ak i yonentam nekk noonu mboolem wa jibril ak jibril nekkit noonam jibril oo mikaayil ak mikaayil nekkit noonam mikaayil mi wax ne mooy seen xarit fa inna allaha naka yàlla adduwun noonu la mu lil kaafiriina ñeel way de diña de ku noonu ñunu man yàlla itam noonu naa la ba faw jibril sanga malaaka yi la yàlla woon ci way ji wa yonent bu nekk moo wàccil ci moom téere jibril mu màgg moomu nag ne de nekk doomu aadama de ñu juróom ñaari yëf jibi mu ne bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy julli ci mbooloo mu ne bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy teew ci jotaay borom xam-xam bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy defar diggante ñu naayoo bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy teral julli bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy jiite tàdd ak jullit bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy seeti ku feebar bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy gas ci teen yi nga di ca naan rek rek juróom yaari yëf yi moom gënal yi lamboo tax na jibril sax bëggoon a nekk doomu aadama ñu eh, waaw bàyyi place am ñëw nekk kenn ci ñun de wala xadam sal naa ñun day wasal nanu ilayka jëm ci yow muhammad ayaati ni kaate bayinaati yi di way weex ibnu suriya dal di jóg dem ne yonentu dikkoo ñu dara moom la yàlla tontu ne anaam indi nañ kaate yoo xam ne yu weex tàll la waa yaktumu weddi tit yaa ci kaw te ilal te yàlla moo tax de waaw waaw kéefar kenn du weddi alquran lu may koo xam ne faasiq la de kéefar ñetti yëf yi la mën a ñëw benn nit ki tudd ci làmmiñam te gëmu ci xolam kooku naafiq la wala mu tudd gëm ba noppi te jëfewut li nga xam ne moom la sariyaatu tëddal kooku faasiq la wala mu baña a tudd bañ a de kooku moom xeefar la xeefar nag ba gën a bon mooy xeefar boo xam ne faasiq la de ñii ñoom xeefar lañ faasiq lañ fis ku génn lay firi ku génn ci diine rek génn ci topp dañ koy wax faasiq suy xeefar bu di faasiq boobu yéefar mooy ci yéefar yi de awee dinañ awa kullama haadoo awee dinañ dépp bu ñu wóoroonte haadan kóllëre ci gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kóllëre bu ñu joxe dañ ne woon bu leen yonent santoo seen laaj yee ñu gëm yonent santoo seen laaj yëpp waa nam seetee seen xol ba noppi taxul ñu gëm te yonent bi nga xam ne lu miira yaaram la mas da jàng mas da bind mas da dem ci benn teeru mas da jëkkaale ak benn borom xam-xam loolu di seen mbóot yi téere yi jëkkee nga xam ne waaw ñu gën a géej ci ñoom sax xamuñ ko li ci ci tawreet euh, soppi nañ ko ba ñoom ko yowoor yi xamatuñ ko woon yeneen bi ñëw leen ko wax na mu tëddee woon loolu waaw nam li gën a tegtale ñu nekk yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ci la bokk waaye terewul rek ñoom na basoo sànni ko fële ku suuree mineen ci ñoom terewul ñoom ñu sànni ko nga rek gañ waxante woon ne su leen tontoo ñu gëm bal ba yi daal solum gën ca bëri seen laa yow mi gëm ci ñu wala maa jaawum ba dikkalee rasulun ci yónni mineen di laay tukka fa yàlla te mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam musaddiqun bu dee aji dëggal kuré mi ne dina ci ñaaña utul kitaaba joxe na leen tawreet kitaaba laay tawreet yàlla ja war a sóori ca gannaaw ci gannaaw seen rek ba nga feem sallallahu alayhi wa sallam indi boo xam ne dëggal na la tawreet indi woon ñoom ahlul kitaab ñi nga xam ne tawreet seen téere la woon sànni nañu tawreet yàlla ñu ci seen gannaaw ji gannaaw rek maanaam jëfewuñ ko kaan nawum daanaka ñoom laa yàlla moon a xamuñu de ñu nga mel ni xamuñ ko woon waaw xam-xamam moom du jariñ mooy bu ñu ko ñëfee waaye borom xam-xam su jëmul xam-xamam moom jaay ñooyam de ñu ngi mel ni mbaam mu safi téere de mbaam bu safi téere téeméeri at itam du ca jëlee benn daraja du ca jëlee benn xam de waaw du ca jëlee benn jege yàlla waaw foore itam xam-xam bi ci dënnam waaw mi ngi mel ni ay téere yu mbaam saf rek su fekkee jëfewu ko de su ko jëfee nag waaw kon lay faga nekk njariñ de ñoom yowoot nag seen téere jëfewuñ ko bañ ko jëfewu nag ñu ngi mel ni xamuñ ko de wa tabaon sañ topp maa tadloo la jàng na ko te daa ngi mel ni mu baare woon te maa lañ bëgg maa tadloo la jàng na ko sayaatinu seytaane ya ala mulki Suleymaana ci jamonoy nguurak Suleymaana de ñu dem nag topp la seytaane ya jàngoon ci jamonoy nguurak yonent yàlla Suleymaana xam ne ña ko suuloon ca ron gàngu naa Suleymaan jalaal ne ba nga ne nangu nañ nguuram ga saytaane di sàcc ay dégg di ko boolee ci nar di ko sànni ci bu xaabee ñu ñëw waaw di ko suul waaw caroon ngangu naa Suleymaan agal ba nga xamee nag ne waaw Suleymaan dee na ñu daal di ko jénge boole ko waaw ni ñi de Suleymaan xamee woon moo tax de waaw ngëfam doon dox ñu ñu daal di jublu ci njabar moo tax de waaw ñu ci waaw ca réew yooyu na loolu la jalaal wax fekk na demewul noonu demewul noonu de wama kafara jabar yewoot ne seddal Muhammad waaye mi ngi tudd Suleymaan ci yonent yi Suleymaan mi nga xam ne doon dara lu mooy ab jabar buur ne wama kafara xeefarut wama kafara jabarut Suleymaan Suleymaan de Suleymaan mas a nekk xeefar Suleymaan mas a nekk jabar de laa yooyu lañ xame ne njabar xeefar de mën daa ànd mukk ak gëm yàlla de walakin na sayaatina lu fi nekk seytaane ya kafaroo wet nañu yoani moom danañu xamal naa sa ñees seen njabar li am daal mooy seytaane yi ñoo xéefar ñoo doon xam ne njabar ñoo ko doon xamal nit ña waaye du Suleymaan kesa Suleymaan xal si naa ñëw waaw ca saaru saar insha allah wa maa um sila ak la wasaleef alal malaka yi ca yaari malaayika ya bi baabila ca baabila ak waaw ñu xam ne njabar gi nga xam ne yàlla wàcce woon na ko ca yaari malaaka yi nga xam ne ñoo ñëwoon baabila di xam le njabar baabila dëkk la ca sawaadul xaraaq xaaroota xaaroota wa maaroota ak maaroota yaari malaaka la yoo xam ne yàlla fa na a yebaloon ñuy jàngal nit ñi njabar ñuy xawan nit ñi njabar ndax wasuloo leen ko ndax li xam lu baax ware noonu nga xam lu bari tam ware ndax soo xamul lu bon doo ko mën a teet naka nga xam ne soo xamul lu baax doo ko mën a def kon nag niñ xamee ne waaw wedd yàlla xaraam na njabar xaraam na war nañoo xam it lanañ njabar bañ mën koo bàyyi de moo taxoon yàlla wàccee yaari malaaka yooyu ca baabila ñuy jàngale njabar di ko wattandikuloo nit ñi fóori yi nag danañ ci nettali xisa boo xam ne ñu bëri dañ ko saxal ñu bëri dañ ko weddi Ibnu Hajar na ne lu wér la bay baaw yi na ne waaw duwut lu wér ndax ci téere yow yi rek lañ ko jële ñu ne malaaka yi dañoo tawatoon ci yàlla ne ko ñun daal gisuñ ku bone ni doomu aadama ni nga leen terale li nga leen jox ci xéewal ak jëf yu ñaaw yi nga xam ne bët bu set mooy jóge ci ñoom lii daal war daam yàlla ne leen doomu aadama damaa def ci ñoom bakkan def ci ñoom baneex a bakkan boo xam ne su ma ko defoon ci yéen ngeen def li ñuy def ñu ne mukk jaaduwut nit ñi may la mu ne tànn leen yéen gën a wóoru ci yéen ñu ne Haaroota ak Maaroota yàlla toggale ci ñoom bànneex ak bakkan ñu bëgg lekk bëgg naan bëgg tey bëgg yi doomu aadama bëgg yëpp yàlla ne leen wàcc leen ci nit ñi te dee leen àtte ci dëgg benn bu leen sakkal yàlla bokkaale bu leen rey bakkan bu leen njaaloo bu leen naan sàngara ñu ne waaw suñu wàccee di àtte diggante nit ñi bu ngoon jotee rek yàlla xamal na leen gis miraasam ñu ko jàngee rek ñu naaw delluwaat ci asamaan ñu toog benn rek di àtte as ndaw bàyyi ko ja soo xam ne taaram ba gën a suba mi su su saarata ñëw ci kalaame di jëkkatam ba mu taxawee ci seen kanam aaroot na ne ma aaroot waaw li ma yëg ci sama bopp yëg nga ko ci sa boppam mu nam ndaw si mu ne ko raw fuuf mu ne ko nañ ko sàkku mu ne ko aha yàlla xaay nañu ko te yàlla mbugalal tat na mu ne ko waaye yàlla yërmande la yàlla nañ ko sàkku rek ñu ne ndaw si ajja ñun dañ laa bëgg ndaw si ne leen balaa ma leen a jox ni ngeen bëgg ngeen àttal ma ni ma am dëgg ñu ne ko yaa am dëgg yàlla daf leen ne woon na ñaata dëgg daan nañ bàyyi xaar dëgg ne nañ ndaw si rek yaa am dëgg ajja ndaw si ne loolu dëgg ba da ngeen ko reyee ñu daal di ko rey ne naka mu mu ne ba da ngeen naan sama sàngara bi ñu ñu ne indi ñu mu jox leen ñu naan mu ne ngeen du jëndal sama xërëm bi ñu nangu du jëndal xërëm ba xam leen ndaw sa juróom yi leen yàlla aayoon yëpp def nañ ko ndaw sa ne leen ba da ngeen mañ xam leen nag ci sulaala sax ngeen di jàng day naaw dem ci asamaan ñu xamal ko ndaw sa mun naaw dem ci asamaan yàlla xaaral ko soppi ko biddiw mooy biddiw dorate boobu ñoom nag ñu jàng sugóor bëgg a dem seeni seeni mbagg topp leen ndekete rek leen ñu xam nag ne yàqule nañ ñu dem ci Idrissa yonent yàlla Idrissa ci jamonoom la ne ko daal nag ñu ñaanal yàlla suuf Idrissa ñaanal leen yàlla nga leen jënd leen naa leen bëgg dem àdduna ak mbugalam alaxira lu ngeen ci bëgg ñu ne sax nañ mbugalam àddina ki nga xam ne dafay jeex ña ngi leen xeew duusal leen ci teen bu nekk foofa seen bopp yee ma nga sës ca ndox ma tamar leen bëgg a rey seen waaw tànk yi jëm kaw boobale ba léegi ñu ne loolu mooy xisa aarut ak maaroota waaye maa xeneen ci biir kër yi damay xisa moom wérul te moom léegi la mën mën damay di tam ndax malaaka maasoom lañ mënuñoo def bàkkaar waaw mënuñ koo sax ak itteewoo li am daal mooy laaya gi wax rek wàcce woon na yaari malaaka ñu tudd Haaruuta ak Maaruuta ñuy jàngale jabar te lii lañ doon wax wa maa yu'azzimaani xamante ñu min ahadin kenn hatta yaqoola ahaduhuma innamaa nahnu fitnatun yàlla fa ñoo yebal rek ñuy jàngale jabar muy nattu boo xam ne ci yàlla la bàyyi ko jëm ci nit képp ku ko xamlu rek yéefar nga ku ko bàyyi yaa mën a nekk jullit balaa tak pour bul weddi tax na ba bul yéefar bul xam ni njabar waaye temps la mën a tañuy xamlu munu maa ci ñoom maa yu fare xonal ñuy fasale di ñoom bay nag mari diggante góor wa saw ji yëg jabaram de ñu jàng ca dëddale loo xam ne buñ ko defee diggante ñaari woye dencante rek waaw lu yàgg-yàgg dootuñ gisante wa maam dee ñoom bi saarina ñi di way lor bii ci njabar min aadin kenn ilaa bi si la rek ci fekk na njabal ga ci boppam amul jeexit lu mooy bataan rek coobar yàlla rek wayataan la mun a te wayataan la mun danañu xam lu maayalu ruum loolu dana mun lor leen ci àllaaxira wala yan fahum te jëriñ ci mu leen ci àddina waaw te moo di njabar wala xaalimoo walaay xam nañu ne la may saraaw ku tànn na mu njabar ba watte ko tiire yàlla bi maa la fa deen ko fi laaxira ci àllaaxira min xalaaxina tëdd njabara nga bàkkaat yu màgg yi la bokk wala sax mën ndaa ànd ak yàlla kenn mën nga xam bunt ci njabar lu may gannaaw boo xamee ne génn nga ci diine islam yàlla tudd na ko kéefar ne wama kafara Suleymaanu maanaam jabarutoon ñu ne du kéefar bakkaat bu màgg la waaye ci moo bi xaatu sabee ci la bokk juróom yaar yi nga xam ne yonentu na ne waaw jaam bu ko def waaw du mucc sakkal yàlla bokkaale dënge sa yaari waajur njabar daw ci jihaad fas gor waaw su jigéen su njaalowut na njaaloona ak lekk riba ak lekk xalali jidim bakkaar yi li ñu bëri yëpp mag yi ëpp nañ juróom ñaar téeméer waaye juróom ñaar yi ñooy ñooy yi ci gën a gën a mag njabar ci la bokk jabar nag lu saxla ni yàlla wax mën da jëriñ mën da lor lu mooy coobak yàlla mën da soppali xaqiqa yi itam waaye danañ jabar nit ba métit dem ci yaramam danañ jabar nit ba teqale ko ay soppeem teqale góor ak jabaram ci kaw seen lu du seen baneex xanañ jabar la foofu la man manam jabar xem yonent bi mas nañ ko jabar naka la xal see ñëw ca mujj ak téere bi insha allah da xam ne am na juróom benn weer dana defee ne def na lëf fekk defu ko dana def lëf ba noppi di ko bëgg a defaat fàtte ne defoon na ko jabaram Aysata am na juróom benn weer mën na tëdd ak moom njabar ga dox seen diggante ga gannaaw ga la yàlla wàcce ci moom xulon fi yaar yàlla dindi njabar ga ci moom moo tax yaari saar yooyu képp kuñ jabar rek booye ba jàng ko yàlla dana la ko dindil wala bi sa bon na maa saraw la ñuy jaayee bii ci moom am fa sama ay bopp seen law kaana doon te nekkoon nañu yàlla mën a def xam dëgg dëgg yi dañuy mujj ci moom dañuy mujj ci mbugal day waaw ban xam ne duñ jabar de wala waa na moom doonte naka ñoomu yahood amano gëm nañu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak alquran wa taqaw tañ ragal yàlla waaw ba bay ak mooyam ni ki njabar kon ñu yoon leen de dañ ko xasas la masoobatun yoon mi neen di laay bu duggee fa yàlla xayrun mooy aji gën law kaana doonte nekkoon nañu yàlla moo na di xam ne moo gën kon tànn tànn ci ñun jabar ci kawam de yaa yoo alislaam na daa taqaloo raaya naa kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne yow dañ daa xoo yonent bi naa ko raaya naa di lakku yahud waaw mooy dof bu ñàkkam xel ci wax yaaram nag mi ngi mel ni raaya naa sàmm ñu rek waaw lay jublu bu ñëwee wax yonent raaya saaba yi dégg ko defee ne mi ngi bàyyi ko ci raaya naa ji ci di mu raatu nekkate ñoom waaw dof bu ñàkkam xel lañ ci lañ lañ ci da yonent sallallahu alayhi wa saaba yi itam di ko toppandoo ñoom it di wax yonent raay su saaba yi ne raay ñoom yowat yëpp ñu ne xixéer reandoo des nag saad mi na seen lak bocc jaaseem ne leen ku ma ci déggati nga naa yonent raay naa rek ma dog ko baat ak ñu ne ko dégg nañ ñenn ci yéen di ko ko wax dara nekku ci buur daal dina yaa ale si na amana o e yéen gaa ñi laa taqooloo bu leen waxati ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa ko raaya naa raaya naa de lu yàgg yàgg bu leen waxati yonent raaya naa yéen yéen a ngi ci jubbu raaya naa gi ci di sàmm na waaye fekk na yahudi yi ko ko tudde ñoom ñu ngi jóge ci aw xas la ci seen làkk mooy dox bu ñàkkam xel waqooloo wax leen ca wattak raaya naa unzur naa seetal jëm ci ñu de su ngeen bëggee wax yonent raaya wax leen ko unzur naa nga xam ne boobu baat moom benn muskila nekku ci waaye baat bu jëkk bi nga xam ne waaw la muy tegtale jéewóor aw xas la di lee baatab yaaram bi dara néew ci sax waaw bu leen wax bu leen ko waxat loolu de moo tax ni dul ni dulu waaw baaxut de boo ni ni dulo ni duloo xéefar rek waaw mu daal la lor de was no dégg leen la def na digal leen ko dégg ak nangu walil kaafiriina war na ca way weddi ña asaabu mbugal alim mu de aji metti ta mooy safara de maa yawaddu la si na maa yawaddu mébétut allazina ñaaña kafaroo wedd nañu ñu al kitaabi ci ñeer téere wala musrikina du jaageen xeefari yaaram yi ani nasara bu wasa leefat aleykum ci yéen min xayrin ak wayu min rabbikum gu tukke fa borom seen de ak xeefari yaaram yi bëgguñu mukk alquran ji wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa ngir kañaan yahood li tax mooy bu jëkk yonent yi ñoom lañ daa génne ñu xañaan nag yonent bu génn te génn ci ñoom xéefar yi yi nag ñoom dañoo nekkoon ay sang nekk ay buur yoo xam ne dañ leen di topp nekk ay axniyaaw waaw yàlla ñëw yónni yonent bi ci seen diggante nga xam ne gisuñu ko woon muy jidim buy miskin bu amul dara waaw yàlla tànn ko def ko yonent bi yàlla muy sanga way jëkk koy mujj waaw ñoom itam eh, seen riyaasatu ga moo leen taxaa ñaan yonent bi sallallahu alayhi wayu ju ko yàlla jox wala waaye yàlla moom yaxtasu dana mu ba rahmati ci yonentam ko mënee saaw ku mu soob waaye yàlla itam nag moom moom ak yonentam te ku ko neex la koy jox te Muhammad ko neex loolu luñ ci yàlla sol fadli mooy borom ngëneel ala fi mi da aji màgg de yàlla waaw moo bari moo bari ngëneel de kañaana loog yow dara teewu leen a gëm yonentu gannaaw bu xamee dëggoom lu mooy kañaan kéefari yaaram yi itam dara teewu leen a gëm yonentu lu mooy kañaan ba ba Abu Sufyaan jébbaloo yonent mboosóore ne ko bés ne ko Abu Sufyaan lu taxoon ngay xeex ak man danga nga defoon ndax nekkuma ci dëgg mu ne ko mosuma am sikk ci ne yaa ngi ci dëgg dama bañoon rek nga nekk ku ñuy topp man ma nekk di kuy toppe rek waaw loolu laa doon xeex waaye kenn mos da tuuma li nga nekk ku ne xam na ne ci dëgg nga nekk kañaan nag yonent na ne dana lekk yiwi jaam naka safaray lekke matt te kañaan du lor lu may aji yaaram dañuy wax aji tooñ ju gën a ni du kuñ tooñ xamul lu may ko añaan ndax ku añaan pexe mu mu def ba ko lor ki ma dafay ñëw daanu si ci boppam mu yokk mer dellu defati meneen mu ñëw daanu si ci kawam mu dolee mer moom mooy tooñ te mooy mer daay man mi ngi mel ni ci misaal ñu ne nga fab sa xeer di ko sànni nit na nga dangay lukki bëtam la joram xeer woo ñee ko ñëw lukki sa bëtam la jor nga sànni beneen pour bëtam ñaa càmmoyam mu waññee ko lu xisa bëtëb ca mooy nga sànni beneen mu waññee ko damm sa lay loxob la joor nga sani beneen mu waññee ko damm sa loxob ca yaa ngi tawat yaa ngi mer yaa ngi loru te yaa tooñ noonu la ku añaan mel ku añaan nag du nekk sa nga mukk ndaxte ku añaan dafa bëgg a folli yàlla doomu aadama yàlla daf ko bind bind ko ci bañ toppee moo tax sa doomu aadama jiitu nga topp ko benn bakkanam dama dama bëgg ko tax na fe du ko nangu mukk lu may ba taxamee xel la ju ko waral balaa ngaa nangu sa naawle jiitu nga topp ko daal xel la ju la ko jaral moo fay nekk la jooju nag bu ko rek soppe gi di dañ yàlla mi nga xam ne moo ñu sakk sax xamee suñu roxo yi wërsëg yi muy dawal jëm ci ñun moo tax ñu topp ko ku xañaan nag moom dafa bëgg loolu dog xéewal gi ñu yàlla jox ba tax waaw ñu nangu nekk ay jaamam nangu koo topp dafa bëgg loolu dog añaan mooy nga gis lu yàlla may jaam sa moromam jaam nga bëgg mu dañ rek di la yow doo ko am sax bon yàlla gi nga xam ne jëfam ju baax jëm jëmale ci ñun moo tax ñu di ko topp ko añaan ci yàlla moom la bëgg a folli de maanaam sax mi naa dina aw fi aa kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne yéefar yi dañoo diingat alquran diingat bu rëy ne alquran ji ne xanaa bàyyi ko woon fa yàlla su bàyyi ko woon fa yàlla xolli du ci am ak soppali Muhammad nag bu tayee mu digle lii bu ëllëgee mu ne xolli nañ ko digle leneen soppi yooyu ci am nag loolu daal ni róowu la lu jóge ci yàlla lu jóge ci yàlla daal na nekk menn mbir rek xol lii mooy atte buy atte buy wéy ñi di ko jaamoo yàlla dem yàgg yàlla dayal ko ne boobu atte jeexal naa ko dooraat beneen atte ni nga koy def ci teet masla jaam yi dara nekku ci su fekkee yàlla moom i jaamam te mooy dawal ay atteem atte bi mu doon dawal bis ñi tey bëggatuma bii atte bii laa taxawal loolu buur bu nekk sañ na ko sàkka yàlla ji nga xam ne mooy buuri buur yi xolli nag ci ci sariatul ñëw na ci ñetti kanam am na ci alquran loo xam ne dañoo folli baat ba folli àtte ba am na ci loo xam ne dañoo folli àtte ba te baat yaa ngi fi des ñi di ko jàng am na ci boo xam nag ne dañoo folli baat ba taxar te baa ngi fi des li nga xam ne nasxu mooy dindi dindi lëf dindi lëf fam nekkoon def ko feneen ci lay nasxu yi giri soxalab téere sax ci la bàyyi ko folli koo xam ne folli nañ baat ba folli àtte ba mooy xam su rabaatin maalumaatin xat yu xarrim na laaya la woon ci ñuy jàng juróomi namp yu wóor yoo xam ne xale bi namp na ko ci jigéen dana soxal xarmante kooku jooju laaya jàngatuñ ko kenn gisu ko ci alxuraan atte bi it fali nañ ko de ba nga xam ne benn muccu rek mën naa saxal mën naa saxal xarmante kooku fali nañ baat bi fali nañ bi li nga xam nag ne dañoo folli baat ba waaye xatte baa ngi fi des nekkoon na jenn daaya ci saaru noor a cheikhu wa cheikhatu insana yaa farjumuhuma albattata ku fegu ku góor ak ku fegu ku jigéen suñ njaalowee nañ leen jawi doj bañ dee laay jooju kenn jàngatu ko waaye xatte baa fi sax ba léegi loolu mooy loo xam ne folli nañ xatte ba folli nañ baat ba li nga xam nag ne atte bi rek lañ folli baat baa ngi fi des ñu di jàng ba tey mooy li yàlla wax ne kutiba aleykum isa hadara ahalakum mawtu in taraka xayran al wasiyatu lil walidayni képp kuy bëgg dee war naa dénkaane yaari wàjjitam ci xalalam folli nañ ko ak laay miraas ja folli nañ ko ak hadis yonent ba ne laa wasiyata li waaris képp ku la war a doon na sañ la koo dénkaaneel dara ci sa alal ak wasiyatun ilal xawli xayra ixraajin walisi yatawafawna minkum wa yadruna aswaajal ténjag xat googu nga xam ne kuy dee da nga bàyyi sa jabar dénkaaneel ko lu muy dunde mu ténj la at loolu it arbaata asrin wa asran folli na ko baat baa ngi def ci alquran ba léegi ñu di ko jàng waaye atte ba kenn kenn atteetu ko yatti folli yooyu yëpp am na ci alquran bu jëkk bi folli nañ baat bi folli jàng yi foli nañ baat bi foli xatte bi bu ñaareel foli nañ baat ba waaye xatte baa ngi wéy bu ñetteel bi nag mooy ñu foli xatte ba waaye baat bi moom ni nga jàng ba tey yooyu yëpp waaw waaw dara ay balu ci alquran moom la buur di wax ne maanaam sax lu nu folli min ayatin ci laala moom aaya alquran la naati dana nu dikkee bi xayrin ci gën ci jëriñu jaam ci moom ma folli luñ ci dingat yàlla lépp lu mu fami dana indi loo xam ne moo ëpp njariñ ci jaam moo gën a jàppali gën a bëri yoon kon loolu lu muy lor aw misli ay ke kemam boog wala boog muy kemam ci toggeef ak ak yool alam taalam ndax xamula anna laaha naka yàlla addir ne xam na kattan ci lu nekk te nekk na ca follile ak soppali alam taalam ndax xamula anna laaha naka yàlla la waa ji nekk la ñeel ko mulku samawaati buur ak asamaani juróom-yaar wala rek suufi juróom-yaar lu ko soob mu def ci bu ñu xamee ne yàllaay buur bi nga xam ne itam ci yëfam lay soppandiku te lu mu def ci yëfam kon seen di nga ci waaw fan yi daal di jeex de wama lakum jël ñaa leen min mu wattu leen wala na de am turiduna an tasaluura falakum kama su'ila Muusaa kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne Quraysh dañoo ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko léegi indi ñu kawteef ñu gëm la yaa ñu nettali taabal yi Iisaa ja taabal ko ca asamaan wàcc nit ñi lekk ko fi wax yaa ñu fi nettali gëléem ak saaliw gëléem ak ratt goo xam ne dañu laamaar loo matu wasin ko mu ànd ak doomam ñuy ratt ba deyle yaa ñu nettali Muusa doon na sànni xeetam mu soppeeku ñangoor ñu ne waaw mu ne léegi nag ñun lenn rek lañ lay laaj doj safaaw yi de nañu ko ba ma xal ba mu sori dëkk bi nga defal ñu fii joor gu tàlli ñu mën fee gëmbat ay garab def ci suñuy tool wala boog daju safaa ji boppam nga sotti ñu ko wurus ñu séddoo ñun ñëpp ñu am li ñuy wee suñ jiw du dootul ñàkk da nga dekkal Qusay Qusay ibnu Kilaab suñ maam ñu laaj ko sa mbir la xala ñëw jasaaru lana am yàlla yàlla wax wala wana naa nasanaa ilayhim malaa'ikata wa kallamahumul mawtaa wa hasharnaa alayhim kulla shay'in qibalan maa kaanu liyu'minuu lii itam bañ laaj yàlla ñooñu nag buur ne am bayit buri doona da ngeen an tasaloo bu ngeen laaja rasulakum yonent seen kama su naka laaj fon Musa Musa min qablu jëkk jëkk ngeen a bëgg a laaj seen yonent bi laaj yoo xam ne laaji ndëngte la naka nga xam ne na la yahood doon laaje yonent yàlla Musa <coughs> lu ñu waxoon démb ne arina laa jaaratan ñoom dañ ne woon na leen Musa wan yàlla rek wa man yatabaddali ku wat namu al kufra kéefar bil imaani ci gëm yàlla faqad dalla réer namu sa sabili waaw yoonu njub de képp koo xam ne daal waaw bañ na gëm alquran kooka réer na rek alquran moo di njub moom ak réer la de wadda kasiiru min ahlil kitaabi kooku du ko wasal wàcc na ci Ammaar ibnu Yaasir ak Huzayfa ibnu Yamaani bañ wàññee ko bàyyi ko ci xarib ut dañoo dem ci jàngu yi yahudiya fekk yow yaa ngi jàng ñu toog fa di déglu yow de daal di am yaakaar ci ñoom bañ jàngee ba noppi daal ne ñu baax ngeen waaw bu ngeen ñëw ci diine yahood ñu ne ko dara indiwuñu fi lu mooy ñu ngi déglu ci yéen lu ñu gën a saxal ci diine yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ci lañ nekk yahood ne leen ñëw leen ci diine yahood amaar na leen gàtt gàtt bi daal lu tawreet wax ci firi na rek ñu ne ko na ko lool mu ne leen man xóoluwante naa yonent bi ne dama koy topp bu may dee du ma ko warte keneen de ñu daal di dem bañ ak rek yonent ne leen jubal ngeen yàlla wàcce na ci yéen laaya de jàngal leen laaya buur ne wadda mébét na kasiirun aji bëri min ahlil kitaabi ci yahuud donakum ak delloo seen min baari imaanikum ca gannaaw ak gëm seen kuffaaran ngeen di xeefar asatan ngir gaañaan mu neen yaan su din bu dugg ci bakkan seen de ngeen yahuud nañ waaw ngeen murtad waaw bàyyi diine islam bi nga xam ne moo di njub ndax ñoom xam nañ ne réer nañ xam nañ ne yen ñeneen ci yoonu nag ba suñ sañoon yéen ngeen murtad fekk ci leen ci lëng gi nga xam ne ci lay ñàkk ngeneem ak ñoom de min baa di maa tabayee na gannaaw bu biddee dawum ñee leen ca tawreet alaa ko dëgg ga ci mbidam yonent bi de ndax tawreet bayu dara ci mbidam yonent lu may leeral na leen ko janoon na ñoom moom nag waa xam nañ ko naka laqal see ñëw nañ xamee seen doomi góor ya Abdoulaye ibn Salaam ne moom laa gën a xam sax ci sama doom bi góor faafoo waaw jéggal leen leen was fa dëdd ba dikk yàlla bi am réyi ci ndigalam de waa loolu jëkk xare la de bu jëkk yàlla dafa sant yonent lépp luñ ko def rek mu jéggalee waaw te dëdd bañ a fa yoon teg ñoom ba mu ko joxee ndigal nag ci xare ina laa naka yàlla xaddir ma ajaat la ma laa ko di seen ci lépp lëf de waa qimoo taxawal leen salaata julli juróom waa aatoo joxe leen zakata asaka wa ma tuqaddimoo lu ngeen jiital ko di anfusikum ñeel ay bopp seen min xayrin ci daala moom sadax la ak jokk ak bokk ak topp yàlla tajidoo da ngeen fekk ab yooloo men dalaay fa yàlla de ina laa naka yàlla basir naa ji xam na bi maa tàmbaloon da ngeen jëf ko dina leen ko xëy wa qaalu wax nañu ne lañ yadxula xaraf si daal janata al jana ilaa man kaana ndara ka nekkoon ka nekk nañu ndara ñu nekk nañu xoo dan di yahud yahud dellu nañu indi te beneen fen ñu ne kenn du dem aljana lu may koo xam ne rek yahud la ñun ñoo moom aljana ndax ñooy doomi Ibrahima Ibrahima xaritu yàlla ñooy doomi Oseer Oseer moom doomi yàlla la far waaw ñun kay aljana duñ ko diggaale kenn nasaraan na yaraana itam ne kenn du xaraf aljana lu may ku nekk nasara buur ne waqaalu wax nañu ne la ñett ku la xaraf si aljana te aljana yi daa kaana nga bañ a nekk den di yéexoor aw nasaara wax na nasaara ñu ne kenn du ko jana lu mooy ku nekk di nasaara fil ko waaye jooju de wax amaani yuum ay mébét seen lañ de loolu mébét rek la du yaakaar de raak yaakaar mooy loo xam ne jëf jëf jiit na ko soo xamee ne yaa ngi jëf jëfi topp yàlla di sakku di yaakaar aljanna kon loolu yaakaar la waaye gëmuloo toppuloo yàlla di yaakaar aljanna loolu duñ ko tuddee yaakaar loolu nëgat lañ koy tuddee nëgat muy nar rek yaakaar ne da nga góob te jiwuloo kooku du yaakaar kooku nëgat rek la yow de nasaraan yëpp dañoo nëgat xaram aljanna waaye seen nëgat moom du dëggu de kul waxal aatoo dikke leen burhaanakum lay seen in kuntum dem nak yeen saadiqiina di way dëggal su fekkee wax ngeen dëgg indi leen lay indiwul benn lay mu ne bale anaam dana xaral aljanna ku dul yéen de man aslama ku jébbal na mu wañoo jëmmam lillaahi ñeexal yàlla koo xam ne jébbal na jëmmam ñeexal yàlla ku gën a xar kanam bi ndax moo gën a ci jëmm ji soo jébbalee sa xar kanam waaw li ci des waxi noppi koo xam ne fab nga sa kanam wa jébbal ko sa borom wow wata moom muhsin aji wéetal la mu te wéetal yàlla wax ne laa ilaaha illallaahu muhammadu rasuulullaahi fa lahoo ñeel na ko ajuroo yoolam en rabbi fa boromam mooy aljanna wala xawfun tiit ragal alayhim ci ñoom wala am bien ñoom yaxsanu ñu jàq la ca àllaaxira de képp koo xam ne tey jébbalu na te xéwénal jébbalu mooy nga wax laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah nangoo taxawal julli juróom nangoo woor weeru koor nangoo génne asaka soo amee alal nangoo aj makka su fekkee am nga kàttan la ca yóbbu loolu mooy lislaam nga xéwénal nag xéwénal nag yonent firi na ko na ne mooy ngay jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis su fekkee ni mel loolu yaa ngi koy gis boog ngay yàlla te mel ni moom mi ngi lay gis de xam nga ne mbir ku màggee ni yàlla sooy def lëf te xalaat ne mi ngi lay gis waaw da nga ko rafetal de koo xam ne yaa ngi ci boobu maqaama ñoom ñoom ñoom moom aljana de du yahut ak nasaraan wa qaalati wax na al yahudu yahud ne laysati nasara déet nasara ala sey ñu nekk ci lëf luñ limoo yahud nañu ne nañ nasaraan dara Isa du du yonentu yàlla wax lu bon ci moom ak ci yaayam weddi ko weddi Linjiil wa qaalati wax na nasaara nasaraani yi laysatul yahuudu ci yahuud ala shay ñu nekk ci lëf nasaraani tam na nañ yahuud nekkuñ ci dara ñoom it weddi nañ Muusa ñoom ñaari kuréel yëpp réer nañ ndax ñoom ñaar ñëpp yonentu yàlla lañ nasaara cot cot loo tax na ñu weddi Muusa weddi tawreet yahuud itam cot cot loo tax na ñi weddi Iisaa weddi Linjiil te yëpp yëre yàlla laa yonent yàlla jullit ñi nag ñoom yàlla jubal na leen ñoom gëm nañ waaw seen ab yonent te gëm nañ mboolem yonent yëpp de wowum ñoom yeddoo na danañu jàng alkitaaba téere yi ñu ñoom de te jàng nañ téere yi xam nañ ne yahud na Isaa nasaara yi nañ Linjiil xam nañ ne Linjiil na Muusaa kasaalika naka wax ñi ne xaala la waxoon allazina ñaaña la yaalamuuna xamuñu kéefari yaaram yi loolu lañu wax misla qawlihim muy kamay wax seen de ñoom it wax nanañ ñoom ñu ne ci dara yahuud nasara jullit ji dara ñoom ñëpp waa ci caaxaan rek lañ nekk ci dara kéefari yaaram yi loolu lañ wax waaye fa laaw yàlla yaxkumu dana mu xattee bàyyi na moom diggante seen yowmal qiyaamati jëppencam yàlla si maakaano ci la ñu nekkoon yaxtalifu na doon wuute fii ci moom ci mbiram diine pencam yàlla nag la yàlla yaatee diggante ñëpp ko ko ko képp koo xam ne yaa ngi jàppoon dëgg nga xarafal jànna yàlla ñu ci yàlla boole képp koo xam ne jàppaloon dëgg safara nga jëm de asana laa min dalika wa man aslamu mimman mana'a masaajida llaahi yuzkara fiihaa ismuhu kooku lu ko wasal ñu ne wàcc na ci Rome xabaare nga xam ne tey nettali woon nañ ko ci Rome ba ñu rappalee bayti maqadis haay julli ña jàkka ja ñu ne déedéet mi ngi wàcc ci kéefari Makka bañ tegee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam caatam Hudaybiya waaw ba tere ko waaw xaj ne bëre tabbi na ci nag képp koo xam ne da ngaa xaye jàkka di ko xaye fu ci jaamu yàlla de ndem xéefar ndem julit waaw tabbi nga ci waaw tëkk bi de buur samu deet kenn di gën a tooñ li man manaa caka tere namu masaajida laay jàkka yàlla yi añis kora bu tuddee fa fiyaa ci ñoom ismuhu turam de waaw képp koo xam ne yaa ngi xaye jàkka yàlla yi ñu di ci jaamu yàlla kenn gënu laa tooñ de wasaen tam dox fi xaraabe a ci rappalam de da di ko fexee rappal yow bañ ko dulal ulaay ka ñooñale gaay maakaana nekkut lawum ñaa leen an yarxuluwaa bu ñu xarafat jàkka yàlla illaa xaayifiina ndara njit moom yàlla illaa xaayifiina ndara njit moom xupp leen leen di jaar de noonu yàlla yooyu xaaye jàkka yàlla yi ñoom xaaye leen leen yéen jàkka yàlla yi buñ ko jegee fi lu mooy waaw ci ci ci xale leen moo tax ñoom ñu yonent aayam leen waaw innamal mushrikuuna najasun falaa yaqrabul masjidal haraam ba'da amihim haazaa waaw wa an laa yahujja waaw al bayta mushrikun waaw la mu yónni woon yonent yàlla sayyidina Aliyu waaw ca atam juróom ñeenteel ma moom la xebaloon mu jàng saaru baraatun xamal ne masjidal haraam xéefar dootu ca tabbi gannaawaat mooma waaw mayetuñ benn xéefar itam mu aj Makka waaw aj waaw julli ñi rek ko jagoo de wala hum mu ne waruñoo ñoom noonu yàlla yéen ay jàkka yi nag waruñoo dugg ci jàkka lu may waaw ñu upp leen de law mu ñaan leen fi duniyaa ci àdduna si suñ torox te daañ torox ci àddina torox nañ ba nga xamee ne kere xarab bani xureesata yonent joxe na ndigal ñu ay xureesata ñëpp jàppam na liir waaw sas leen ak galak ba pencam yàlla de wala mu war na ci ñoom fi laaxarati ci àlaxira saabul mbugal asiwul mu daa ji màgg de jàkka yàlla yi ñooy néegi yàlla yi ci suuf nga xam ne ci la ñu xamee màggal yàlla képp ku cay dem danga ca war a dem pour julli yàlla ak tudd yàlla ñëpp nag ñoo ci yemoo benn ci lan faar ba nga xamee ne ak dee am teew na dafa waa këram ne sama njaboot ñëpp a ngi ñu ne ko sa jabar rek a fi nekk amaa say mbokk say àndandoo ñoom dem nañ ca jàkka ja mu ne yëkkati leen ma toog ñu yëkkati ko mu toog xool leen ne asalaamaaleykum nuyu leen maa ngi di wax ci yaati su ma déggoon ci yonent bi su ko wax dama ko nëbboon ngir sellal sama diggante yàlla waaye tey danaa ko wax ngir sellal sama diggante yàlla takku bi yoon dégg naa ci yoon bi mu ne di jàpp ci sa kër ñu dox jëm ci jàkka ja jéego bu fa tànkam nday jor déggi ngay nga bindal bii moo ëpp addunaa lu ci biiram bu fa tànkam te mooy jéggi dinañ la faral bakkaat ba ba ngay xàgg soo xàggee fekk ci digg boo julee ba sa ñu baal la mboolem lu nga julli garaw la doy la jundal yoolab mboolem ña fa julli ak ña fa ña fa wuute leen lii ci yonent bi laa ko déggee sallallahu alayhi wa sallam dee te waxuma leen ko anas na ne yonent na ne sallallahu ku jàpp ci nan njàppam génn dem ci jàkka ja dara yëkkatiwu ko lu ma julli bu demee jiite ni maam de mu ngi ci ribaat mooy faanu ci jaat su jullee fekkee julli nga ñu baal ko lépp lu jiitu woon ci bakkaatam su jullee ba noppi toog di ne geneen julli nag loolu mooy ribaat naka ko yonent waxee ndax yàlla wax na ne isbiroo wa saabiroo wa raabitoo sa ribaat ci jamono yonent wax dëgg amuloon foo xam ne dañuy wut ay soldaar yu daje nekk fa rek waaw di pare jiyaat ñëwagul mosuñ ko def ribaat bi nga xam ne moom la laay ji wax yonent na ne mooy julli ba sëlmal toog di nekk geneen julli waaw di tudd yàlla ba feneen julli fekk la fa dane fa saalikum ribaat fa saalikum ribaat fa saalikum ribaat wax na itam ne déggaleen doxkat yi ci lëndëm jëm ci jàkka yi ci leer gu mat waaw pencam yàlla amma ay jàkka nag ndem ki ko def yéefar la ndem ki ko def jullit la te leen jullit danañ koy def lii la ci yàlla tëkkoo képp ku koy def da nga torox ci àddina te da nga mas mbugal ci àllaaxira walillaahi almashriq wal maghrib kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne dañoo diingat xolli xibla yi de yonentu sallallahu alayhi ba alxuraan wàcce ci moom bu xees mu nekk màkka bu daa julli ca kaaba ga la daa jublu dem génn gàddaay nag ñëw madina fekk fa yahood yi seen xibla di bayti maqadis yàlla digal ko ne nay julli ci julli ci xibla yahood yi ndax mii leen ndax ñu ndax ñu ñu ñu ndax ñu bëgg lislaam yonent sax am na fukki weer ak juróom benn ci madina di julli di jublu baytul maqdis fekk ci xolam jublu Makka rek la bëgg ndax diine Ibrahima la porté te Ibrahima Makka doon xiblaam te yàlla koy wax naa gis naa sa dëkk di soppeeku jëm ci asamaan ngay sapp woyu gu wàcc pour sant la nga jublu xibla léegi nag jublu Makka mu walbatiku jub fu mu julli ci tusubaar waaw mu daal walbatiku jublu xibla mot li julli ga saaba yi doon julli ca masjidul xibla tey foofa lañ leen ko soloo ñu ku mott li seen genn wàll julli jublu xibla moo tax jàkk ji ñu di ko wax xibla tey ba nga xam ne nag ne yonent doon na julli di jublu baytul maqadis ba mu yàgg mu wàññeeku jublu màkka te yëfari su fekkee ni xibla yu jëkk jaay dëgg ju mujj ji baaxul su fekkee ju mujj jee dëgg seen julli yu jëkkee yàqu na buur dal ne walilaahi aji nekk la yàlla al masriqu penku yëpp wal maxriboog sowu yëpp maanaam yàlla moom suuf si lépp masriq na ca penku ba ñëw fi toloo sa wet ak ndeyjoor dale na ca penku ba ñëw ci sa wet ak càmmooñ sowu itam dale na ca sowu ba ci sa mbagam ndeyjoor dale na ca sowu ba ci sa mbagam càmmooñ maanaam wàllu yëpp la ci jublu fii masriq wal maxrib la fi wax feneen dana wax masriqayni wal maxribayni ngir eh, ngir seet waaw maset fi wasitaay wax na masaret masaret yi nag lu ko waral mooy seet dam na birabil masaret yi mooy seet fenk jant bi ci bés bu nekk te at mi ñetti téeméeri at la ak juróom benn fukk waa ak ñenent yàlla moo joxoon ndigal yonent na jublu jublu kaaba gannaaw bi moo ko jox ndigal na ci li jublu baytul maqdis tey moo ko jox ndigal na ci li jublu makka te yàlla moom penku moom moom taw bon fa ay namaatu wandoo te fu jubale seeni kanam ci julli tam ak ndigalam fa sammaa ji nekk la ca foofale waju laay xibla yàlla jadi jum gënam na de ina laa naka yàlla waa asewoon ak yàlla ngëneelam alimu aji xam la muy mbindeefam de kon nag dara yàquwuti dara mënu cee nekk kafara ndax yàlla bu la joxee ndigal nga topp ko daal yow yaa ngi ci yoonu njub bu ne jublu penku nga jublu penku jubal nga bu ne jublu sowu nga jublu sowu jubal nga foo mën a jublu foofu la euh, te daal foofaay xibla def xibla mooy topp ndigal rek xibla foofu firika yi waju foofu firika yi lañ ko firee zahiram xibla lañ koy firee muwafiqiina nag dañ koy defal ca zahiram wali ñeen la yàlla almasiqu penku wal maxriba soow maanaam wàll yëpp fa ay namaatu walloo te fu ngeen jul jublu ci seeni julli fa sàmma ak yi nekk la foofale waju laay yàlla ja rek amul genn wàll gooy jublu lu mooy yaa ngi jubloo jëm yàlla ja moo tax ibnu arab yi ne dëgg-dëgg gëm yàlla mbir mooy fu la neex nga julli jublu te foo julli jublu rek sa julli wét na ndax waaw bi nga xamee ni jëm yàlla ngi ci wàll gu nekk loolu la gëm yàlla santaane jublu gi nga xam ne daañu ko jublu xibla kooku adab la rek ànd ak sariatu waaye dëgg-dëgg waaw foo mën a jublu wàll yëpp ñoo yem de inna laa naka yàlla waase woon aji yàlla nga ne lem alimun aji xam ne moom bi deefam de xibla nag am na juróomi xibla xibla yi dëgg-dëgg mooy nga nekk ca masjidul haram ngay jàkkarle kaaba gi kooku moom ngay jublu rek ngay jubloo kaaba gi soo ko deful sa sa xibla bon jubluloo xam ne wóor gaa fii waaw fii la toll tabax moom rek mooy xiblatu astar waaw kooku nit ku nekk Makka rek a am jooju xibla ak xibla nga xam ne yaa nga ca Madina fa mihraabam ñu leen sama jublu nga xam ne moom ko samp ci ko wayu jubli la ñëw ne ko fii xibla waaw kooku it xiblay dëgg-dëgg la ak xiblay lijtihaad nag mooy boo nekkee ci gox boo mën a nekk ci àddina ci penku wala sow fañ fadu ba ne fii la Makka féete foofaay xibla waaw loolu mooy suñ xibla fii xiblay fadu ak xiblay badal nag mooy buy naa fi de moom bu daa am jublu rek mën naa julli jublu foofa xiblay fadu nag foo fadu ba ne kii mooy xibla rek boo jullee jublu ko gannaaw ko bu biddee ne waaw mooy nga xibla sax te dawul sa julli moom wet na wa qaaloo wax nañu ne ñoom yow def na saraan ak ñi wax ne malaaka yi doomu yàlla lay i taxasa la gàpp na yàlla wala dem doom ñu ne yàlla am na doom subhaanahu tudd na ma sellam bal bayit lawoo ñeel na ko maa fi samaawaati la nekk ci asamaan juróom yaar wala nekk suñu juróom yaar ku lun képp xaalitoona way topp la ñu moom rek ñu ne yàlla am na doom xoseyru ñu ne yowut ne xoseyru doomu yàlla la nasaara ne xeesa doomu yàlla la maam xifari yaaram yi ne malaaka yi doomu jigéen yàlla lay déedéet yàlla lu muy defe doom sell na jaam doom moom moom asamaan ak de ak ñu ne ci diggante bi teg moomeel daa ci sariyaatu soo moomoon sa doom rek mu daldi gore de koo nag yàlla moom moom lépp lépp ay njaamam lañ te kenn mën da génn ci njaam ak yàlla koo nag fu fi doom di mën a nekk badiyoon samaawaati aji tant asamaan juróom yaar wala de suuf juróom yaar way saa xasaa dem nam namu am ran xamaram bit fay na maa yàquru naka dana mu wax la wañeel ko kun nekkal fay akunu te moom dana mu nekk yàlla lu muy defe doom bu ne kun rek mu nekk law wax nañu ne waqaala wax na la si na ñaaña la alamun a xamuñu lawlaayu kalimuna la aw tere waxe ñu yàlla ne ab yonantam nga aw taatinaa i ca dikkal nu ayatin kaawteef ni kiñ ko sakkoo buur ne kasaalika kem ne wax ñële xaala la wax alla si na ñaaña min xam li way nekk lañ ca jëkk seen de loolu jëkkewuñ ko de seeni morom waxoon nañ ko mis la xaw li indi muy kem ay wax seen de te saaba ñu doon a xuluubum ay xol seen ci kéefar ak ndëng loolu def na yonent bi la ak bayanaa bi danañu laayaati kawte fi alquran li xam ne ñeel aw nit yoo xiiru ñoom danañu xam ne waaw kawte fi yàlla lañ de ñoom ñooy gëm duñu sàkku yeneen kawteef kon nag sàkku kawteef gannaaw alquran ndëng rek la waaye du bëgg a jubde dinaa naka noonu arsalnaaka yoon nañ la bi dàq ci dëgg ba siiran ngay aji dëggal ku gëm na moo ko àjjana wana siiran tey aj raga ragaloo ku weeri wala tasal bu laaj xanaa daaw jay na ci waroon na jay de bu laaj waaw ñi nga xam ne jay nañ xala dëkkale waaw waroon tarda nga dem ci ànd ak ci yow al yahud yahud wala nasaara nu ñaage nasaara atata tabiande ba nga toppe mi ne taw gina seen de waaw yahud ak nasaaraan man laa am seen nga dem de feek fekkoo leen ca la ñàkk xul waxal inaw dalaay naka njubam yàlla ci lislaam woo moom alu daa mooma dim njub de lislaam rek kay njub moom réer la de wala yi tawrata wala yi ndem topp nga awaa am bànneex te am ya baada la si jaaka gannaaw la dikkal na la ci wayu loolu ci noppale ko a la ne xam naa ne doo ko def mais xel ni ki daala moom ak wayu la maalaka den ñi àlla mais laaj ci yàlla min wàll yi na aji wattu de wala na sirin di jaagan aji tegan bugal de wala si na ah naa am jox na leen alkitaaba tawret alkitaaba téere yet loolu danañu jàng ko xàq tilaawati dëgg-dëgg jàngam ñi nga xam ne alquran wàcc na ci ñoom ñooy xeet yonent dañ di ko jàng dëgg-dëgg ulaayika ñooñu rek ay yoom yi danañ gëm fii ci moom de ñooñu danañ ko gëm fii ki ne wàcc na ci mbooloom xabasa waaw ba nga xam ne na jaasi yi jub jégalu na yabal ci moom ñaar fukk ñu ànd ak doomam ñëw jaayante yonent ba man yàgg pour ku wedd na mu fii ci alquran ulaayika ñooñu rek ay amul ñoom alxaasirona ñoom di way perte de ñu ndax mu ji koy xala mu ji ci safara si ñoom yaa bani Israayla yéen doomu Yaaqooba fukk ak ñaar uskuroo fàttaliku leen a ma ci xew te ci xew nga xam ne anamtu xewee naa ko aleykum ci bàyyi seen waa nakum nag waa ni ak naka man fadaltukum gën la may bàyyi seen ala alamina ci mbir leen jamono seen de ak ak kemam jiitu woon na wattaqoo ragal leen yow man bés laa tajisi jëriñ ci nafsun bakkanam julit an nafsin ci bakkanam xéefar feen dara de wala yuqbalu defut nangu mina ca bakkan ba adlun ak njot wala tantoa jëriñ ci ko safaatuna am ram wala bu ta deen ñoom yun torona defi tere leen bugalam yàlla rek te mooy péncam yàlla rek waskur jàngatal isib xale ba nattoo a ibrahima rabbu boromam bi kalimaatin ci ndigal de fàttaliku ba nga xamee ne yàlla nag na yonente yàlla Ibrahima digal ko ay ndigal ak i tere sokk ko ko de ndigal yeeg tere yi nag ñu ne mooy manaasikul hajj yi mooy li aji aj di def dal defe ba mu xarmalee ba mu yeweeku ñu ne déedéet mooy galaxndiku soxndiku ak soccu waa ak dogi naanu waa ak xàll bopp ak xëy léegi we ak wef kawar ak pokkataan waa ak waat ak xarab ak ak tànk ci ndox amaa tànk ci waaw doj kooku xeet yonent ñoo ñu ne déedéet yi nga xam ne yàlla na toll ko Ibrahima yonent na ñett fukk nañ ci ci suñ diine jile waaw fukk yi nga xam ne ñoo nekk ca saaru euh, baraatun mooy taay boo na hamidona hamidona waaw ba ca muggal waaw ba ca bashiril muminina waaw ak fukk yi nga xam ne ñoo nekk ca lasaab innal muslimina wal muslimaati ba ca ajranaa fii man ja waa ak juróom-ñeent ya nekk ca saaru muumin xadaf la al muuminuuna la si noom fi saatin xaasiona ba ca waarisuuna waaw fukkeel ba ma nga ja saaru saala wala si noom bisaaratin qaayimoon waaw muy fukk yoo xam ne waaw ñu ngi ci suñ sariyaatu moom la yàlla toggoon yonent yàlla Ibrahima waaw yonent yàlla Ibrahima moo jëkk a waaw ba mu rek gis kawar waaw bee ci sikkim mu ne yàlla lii lan la mu ne ko ak wegu la mu ne yàlla dolli ma ak wegu waaw moo a xaraf itam gannaaw bu ma amee juróom-ñett fukki at waaw yàlla digal ko na xaraf waaw mu xarafal boppam ci semiñ de waaw la ko yàlla santoon yépp mu def ko fa tamahu na tamatal leen moom ibrahim xaala wax yàlla ne ko inni naka man ka aji def la ma la imaaman ngay roy téef li naa fi ñeen nit ñi de yàlla daldi ne ko bi nga xamee ni ma la sant yépp def nga ko nag may ni ma lay fayee mooy naa la def ngay ngay roy téefal ñoom diine yépp ci mboolem diine yi moo tax yow nekk ci diine Ibrahima lañ nekk nasara nekk ci diine Ibrahima lañ nekk lislaam ci diine Ibrahima xaala wax Ibrahima ne wa min duriyati ak ci doom sama samay doom it nañ ci def ay njiit buur daal di ne xaala wax yàlla ne ko laa naalu jot kit anti yëpp kelimaan sama zaalimina way wedd ñene mu ne ko xelimaan nag waaw xéefar du ko doon te say dooma xéefar dana ci am de foofu la Ibrahima jëkk xam ne ay doomam xéefar dana ci am pour jàngatal is jaana ba ñu defee albayta kaaba ga masaabatal mu di delluwaayu naa si ñeneen nit ñi jàngatal ba yàlla defee kaaba ga ca makka muy delluwaay ñeen nit ñi at mu ne ñu di ca dellu bàyyi ko ci bépp wàll wa am nan tey barab kóllëre di barab boo xam ne ku fa dem rek wóoru nga kenn du fa tooñ kenn kenn du lokki xare jëm fa waaw ku dañoo na ku rey sa bàyyi sax doo ko gàllu waaw wa taxasoo wa taxasoo tañ jàpp waaw ñu xam ne ñu jàng wa taxasoo jàpp leen min maqaamu ibrahima ci maqaamu ibrahima musalon ab julleekaay de na ngeen julli ci gannaaw waaw dañ ba nga xam ne mooy maqaamu ibrahima mooy dañ booy ibrahima doon taxaw ba nga xamee ne ma ngay tabax kaaba ga de mi ngi da day ni meetar mu war ñu ne xafat waaw yaay noonu waaw tëcc na taxaw ba tabax kaaba gi nga xam ne guddaayam waaw ñett fukki xasab la ne waaw di fukki mètre ak juróom noonu la kawee ci nañu gàtt woowu da doon taxaw waaw ba tabax ko ba mat bu ko tabax gi sippee rek waaw dañoo yuqeeku ba mu jotaat tabax ga rek waaw ba ba ne màgg waaye naa dan digal ilaa ibrahima jëm ci ibrahima wa ismaila ak ismaila an naka mbiram bi taxiraa laabal leen bayti yéen yeeg sama di saay fi na ñeel way wat ñi wala sax ña waaw ngir jaamu yàlla waru kaay weeru koña ak si jóodi ñeeti way si jóode way xaala aba waxee raayim ibrahim rabbi yow borom sama yéen yàlla nga defaa saa di lee barab bala muy dëkk am leen mu di borom ko de waaw yàlla nangu na ñaanam ba nga xam ne def na ko mu xurum joo xam ne duñ fa tuur deret duñ fa tooñ kenn duñ rëbb rawam xam waaw wërsëg a aaleho ñu ñoom mi ne samaraati ci a maanaam nag gëm na moom ci ñoom te yàlla nga leen may meññet yi waaw ñu di ko wërsëgloo waaw mi ngi ragal nag li ko daloon bu jëkk ba mu ñaanee kilimaan ñaar ay doomam ñu ne ko yéefar bi ci bokk bii yoon moo tax mu ne mën a am na minhum waaw bilaay ci yàlla wala yoon di ko bés aaxiri ba daa ji mujj xaala wax yàlla ne ko wa man kafara dina ma wërsëgal ku weddi na mu itam waa wërsëg moom xamul ku gëm ak ku weddi ñëpp laay jox wërsëg de xaw ma teewoo dana ma yóbbal ko xalilan yóbbal gu néew suma taroo topp ma weet ko ilaa asaabi neeri jëm ci mbugalam safara de wa bii sa bon na almasiru den waaye wa safara wa kur jàngatal is yar fama ba dana yëkkati ibrahima ibrahima alxawaane da fondement ya mi na bay ti jën néeg ba de jàngatal ba yonent yàlla ibrahima waaw di yëkkati waaw tabax yi néeg ba nag waaw di ko tabax ci ndigal yàlla wa ismail ak ismail yonent yàlla ibrahima mi ngi dëkkoon ci waa Palestine am na juróom-ñeneen fukki ñaar fukk amul doom jabaram am juróom-ñeneen fukki at ak juróom jabaram muy Haajara benn buur may ko ko gannaaw xetal bu gudd ba ko ko mayee moom it mu may ko yonent yàlla rek yonent yàlla Ibrahima def ko taara jubbalu jigéen fiir dafa ko tax a jur naka la wu jëm biir rek moom mu fiir ba biir moom itam humbu isaaka ba isaaka juddoo nag Ismaayla man ko waaw di ko dóor bu ñuy ko rek nga doomam di jooyloo set mu mënu ko muñ ne Ibrahima sax garab yi daal ak doomam ji yóbbu leen bëgguma leen gisati yonent yàlla Ibrahima daal di xëy war gëlémam waaw yaari mbuusam mii mu feesal koog ndox mii mu feesal koog tandama waa di doxal di doxee jóge saam waaw baas bi ci nga xam ne fi la kaaba gi nekk tey makka mu mu wacc leen fa de waaw booba lay ñaan ñaan yi nag fekk na kaaba gi ba yàlla wàccee aadama ci suuf aadama dafa jooy de ne ko yaa ngi ma génne aljanna waaw ci diggante malaaka yeeg wóoru ni nii waaw indi ma ci àll kerte nañ boo xam ne du ma dégg kenn kuy tudd yàlla waaw duñ fi jaamu yàlla duñ fi tudd yàlla yàlla daal di wàcce bayti mahmur muy kaaba gi ca makka ne ko waaw néegal moom waaw dee ko xaj aadama jógee na waaw hind di xaji makka ñeneen fukki yoon ci dundam te booba war waay amut daf doon doxal tànkam te war waa xamee sax moom booba benn daabaatunu ko gannaaw ga malaaka yi ñoo njëkk tabax kaaba gi ah, gannaaw ga aadama ci boppam tabax na ko ay ah, siisa doomam tabax na ko waaw gannaaw ga gannaaw siisa yonent yàlla ibrahima tabax ko mooy tabax bi ñu ko tabax gannaaw yonent yàlla Ibrahim waaw a yi tabax nañ ko waaw jurhum ñi tabax nañ ko waaw xura Qusay ibnu Kilaab tabax na ko waaw Quraysh ci seen bopp tabax nañ ko waaw tabax boobu nga xam ne yonent bokk na jafe moo teg Hajaru Aswad waaw ca palaasam ba gannaaw ga Abdullah ibnu Zubayru tabax na ko waaw bay Hajjaaj faloo roy Abdullah ibnu Zubayru waaw toj tabaxam ba dellu ko tabaxaat muy fukk fukki yoon yooyu dañ tabax kaaba ga waaw ba léegi tabax tabax xajaaj booba waaw moo fa nekk ba léegi de waaw tabax bu njëkk ba malaaka yee ko tabax kon na moom baa nga jàpp ca asamaan juróom ñaareel sa ba nga xamee ne yàlla na ne Ibrahima demal tabax ko Ibrahima ne xaw ma palaasam ngelaw ca weer ñëw fàkkal ko fi nga xam ne nekkoon mu gas nag ba jot doj ya nga xam ne ñooy ñooy na moom ba waaw mu gas bëgg ci dëkk benn doj suuf si yëpp yëngatu mu am ne foofa la mu daal di ko tabax rek waaw mu ne doomam Ismaayla yàlla digal na ma naa tabax kaaba gi ndax dañ ma dimbale waaw Ismaayla ne ko waaw danaa la dimbale ñu bokk nag di tabax Ismaayla indi doj yi waaw Ibrahima di tabax rek nanga naa rabbana yow borom sunu taqabbal yàlla nga nangu mi naa ci nun sunu tawax jële innaka naka yow anta yow asamion yaa aji dégg ay wax alalimu yaa aji xam jëf de rabbana yow borom sunu wajal naa yàlla nga def nu muslimin ni ñu di ñaari way xommatu lakka ñaanda wa min sureetina yàlla nga def ci ay doom sunu way xommatu ummatan mbooloo muslimatan mu di aji jublu lakka ñaanda dem wa tub yàlla nga nangu tuubaandi naa ci nun innaka naka arrahim yaa aji a de rabbana yow borom sunu boobaas yàlla nga yónni fii ñooñ ne june rasulun ku ñu yónni ñu ko tudde ci ñoom de te ne bii may tabax ci Makka yàlla nga fi yónni ab yonent bu a ci ñoom de mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu tax yonent daa wax ne maa ñaan ak Ibrahima de maay déggal ak Insa de yeddoo kooku dana mu jàng aleen ci ñoom a alquran sa wa yuallimuhum tamuy xamal leen alkitab alquran wali matakhatin a biitam wa yusakkihim tamuy laaba leen ci kéefër innaka naka yow anta yow ala sisi aji ma ci sa nguur alhakimu yaa ji xarañ ci sa njëf wa man yar xamu déet kenn di sib an millati ibrahima diine ibrahima idaa man safiya nafsahu nda rek réere na moom boppam de kenn du sib diine ibrahima lu mooy ku réere boppam de wala xali safay naawo nun day tànnal nan ko fi dunyaa ci àdduna wa innahu naka moom fi laaxirati ci àllaaxira la mina saalihiina aji nekk la mu ca wiiru ñe la mina saalihiina aji nekk la mu ca waram daraja yu fawee de bas ko jàngatal is xaala ba waxee law ñeel ko rabboo boromam ne ko aslim jébbalul ba nga xamee ne yàlla ngay nattu ibrahima ne ko jébbalul jébbalul rek la ko wax xaala mu wax ne aslamtu jébbalu na ma li rabbil alamin a ñeel aji moom bi léegi de mu daal di jébbalul yàlla de waaw see digal na bihaa ci diine jooju ibrahima ibrahim bani yi doomam yi góor de ay doomam yi góor loola leen digal wa yaqooba ak yaqooba moom it loola digal ay doomam wax na yaqooba ne yaa bani yéen doom yi góor sama inna laa naka yàlla istafaa sànn mu làkkum ñee leen diina dina lislaam balaa tamootu na waaye bu leen dee illaa wa antum ndara yéen muslimoon a way jéggalu ngeen de bu leen dee lu mooy ci lislaam de waaw mooy xéewal gu mag moo tax ba nga xamee ne di saara ñëwal na ko ne ko gis nañ Yuusufa mu ne ci jan diina ngeen bàyyi Yuusufa waaw mu ne ñu ne ko ci lislaam mu ne alhamdulilah léegi nag xéewal gi mat nag ci yàqo ba waaw am bayit kuntum nekkoon ngeen soodaa di way teew ci xafara ba teewee ba yàqoo ba almawtu dee ba yàqoo bay dee da ngeen ko fekke woon ba mu doomam yu góor maa taabuduuna ana lu ngeen jaamu commune ba di ca gannaaw sama xaaloo ñu wax ne naabudu dinañu jaamu ilaaka yàlla sax wa ilaa abaayika ak yàlla ay baay sa ibrahima ibrahima wa ismaila ismaila wa isaaq ak isaaq de ilaa am mu yàlla waaye dañ jëli janna wa nahnu muslimuuna way jëbal nañu dawa ñeel ko de buur ne sin moom mu de mbooloo ummatun mbooloo lañu xat xalat dawe nañu laa ñeel na leen maa kasabat dañu faggu woon ci jëf wala ku ñeel na leen yéen ñu teew tey maa kasabtum la ngeen faggu yéen yéen la ngeen faggu wala tusaluna deefut laaj leen amma kaanu ca lañ nekkoon yaamaloona doon jëf ko de waxaaloo wax nañu ne koonu nekk leen woo dan diw yahud aw nasara i ka ngeen di nasara ta te doo ngeen jub de xul waxal bal dayit millata ibrahima danañu mu aji jàng woni diine yàqu jëm ci wa maa kaana musumoo nekk minal mushrikiina ci way bokkaale ña de koo doon wax leen amanna gëm nanu billaay ci yàlla wa maa unzila ak la wasaleer ilayna jëm ci nun ci alquran wa maa unzila ak la wasaleer ilaa ibrahima jëm ci ibrahima ci téere yëti fukk wa ismaila ismaila ismaila waaw mooy tudd waaw doomu ibrahima ju mag da daa dafa ñàkkoon doom lena am leena am na téeméeri at ak ñaar fukk amul doom tey ñaan yàlla nag saa yu ne mën naa yàlla may ma doom naa isma déggal ilu yow yàlla isma ilu isma ilu moo tax da doom ñu di ko waa ismaila wa isaaq ak isaaq wa yaqoba ak yaqoba wala baateen du am wér wa maa wuti yàlla joxew Muusa Muusa wa Iisaa la joxew na ko Iisaa wa maa wuti yàlla joxew na ko nabi wana yonente min rabbihim tukkee borom seen laa nu farriqu fasalet ñu bay na aadim diggante kenn minum ci ñoom bay gëm ñenn ña di weddi ñenn ña ni yow dal na saraan def wana nu nun muslimoona way jëbbalu nañu la way ñaar yàlla de fa in amanoon yem gëm na saraan bi mislima amantum li ngeen gëm bii ci moom nañu suñ gëmee diine ji nga xam ne moom la julli ñu gëm wan danañ ci fuuteeg yéen de suñ dëddee nag noonu yàlla boona seena fuuteeg yéen bu jeex mukk parce que suñ kaw mu daaw xam naa a leen yàlla de woo moom sami mu aji dégg alaali mu aji xam de suub nañ ko cuub ak yàlla moom ibrahima ibrahima yàllaa ko suub ak cuubam de gëm yàlla bu wàccee ci xol waaw dafay sax ni ki nga xam ne cuub bu de wàccee ci malaan dafay saxoog malaan ma tàggoog moom ba malaan ma dina xotteeku cuub gënu dañ gëm yàlla yi noonu lay mel ci xol moo tax yàlla di ko Eh, te cuubag yàlla nag moo gën cuubag ku dul yàlla na mën a axsanu déet kan bi rafet mais laay ci yàlla si xasan si cuub waa ndem a suuf ma daan mu dem ba xotte nekk ci sagar sa cuub ga du dañ yàlla itam moo dàq suuf moo dem suuf gën yi wana lu naa bi dana way jaam la nu la ñaan ko de waa xul waxal atuwaa joone naa ndax da ngeen xulóog nun fii laay ci yàlla woowu wata moom rabu rabbunaa mooy borom sunu wa rabbukum tey borom seen ngeen di xulóog nun ne yaaram lañ waru ñu am ab yonent waaw te yàlla moom moom leen tànn na ci yéen ay yonent ba mu ko neexee tànn na ci ñun yonent bi mu ko neexee loolu yéen ñun da ngeen ci xuloog ñun wala naa ñeel na amal naa ay jëf ñun ñun suñu jëf na amal ko ay jëf yéen a way xelal la ñu ñeel yàlla ci toppaten am bayit yàquluna danañu wax inna ibrahima naka ibrahim wa ismail ak ismail wa isaaq ak isaaq wa yaqub ak yaqub wala sabaat ak doom seen yakkaanu nekkoon nañu foo dañ ci yowood aw nasara di def aantum yéen aalamu yéen a gën a xam amilaa am yàlla yéen a gën a xam am yàllaa gën a xam su fekkee yàllaa gën a xam yàlla na na ne Ibrahima nekkutoon yowoon nekkutoon na rek bu ma la mu dee kenn di gën a tooñ katama ci kenn dina Musaa la suñ tege ndaw nekk moom dina lay ci yàlla mooy yowoon waaw kër bi leen dénkoon ñëpp wees nëbb nañ ko wa ma laaw déet buur bi xaafilin muy aji bay amaa taamaloona jël da ngeen jëf ko de din ko moomule mbooloo ummatul mbooloo lañ ko xalal ci dina ñu laaj nag rek ñaan leen maa kasabal dañ fàggoon dana ko ñeel leen maa kasabtum na ngeen fàgg walaa bisaloona defut laaj leen amaa kaanoo ja lañ nekkoon jaamaloona doon jëf ko de ku nekk moom la ñuy fay ñu fam de arno <clears throat> rasin bàyyi ko wala jaxajal ñu ma ko ko waaw sam ko waaw berge nem de loolu romb ko ey aarona ey aarona ey aarona benn dof la woon te moom moo bokk bàyyi mu ne kii may woo ci sama tur la diñ leen ci laay sama diggante ak moom ñu dindi ko waaw mu ne ko yow Haaruna ne ko xam nga ma mu ne ko maa mu ne ko maay kan mu ne ko yaay ki nga xam ne ba jëm ne mu ne ko ndax ngaa leen laaj ci jaamu yàlla yi ko ragal yàlla rek lay nangu bi sallallahu alayhi wa sallam da nga defee ñuy jëriñ mu ne ko isa no saxal ci suuf fala an saaba xay ko yàlla mbokk amu bëri ak ko mu ne ko xam yonent mu ne ko la ko saxaate ndaw yi lu ko yàlla jox ndigal ak koo xam ne yàlla gërëm na ko de mu ne mu ko taxawal mu mu mu bañ waaw dañ di ko wan والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى الشيخ wa yaqulu subhaanu naasi kooku ko waxee wàcc na ci yow dañu ne yaakaar nañ ne danañ folli xibla ñuy wax waaye ñuy diinat folli googu ñuy folli xibla yi rek yàlla ngay xamal yonent bi jiitu mu am ne boo xamee ne folli nañ xibla yi te folli yéen ñëwoon yi danañ ci wax rek lu tax ñu ko fa ndax musiba daf ko séentoo ak day gën a mayaf de sa yaqoolu xalnaawa sufahaao way réer ña mi ne naas yi ci ndaara moom yahood yi la ak xéefari yaaram daal am na ñoo wax ne maa wallaahum ana lu soppi na mu leen am xiblatihim walis xibla seen lati jaajakaanoo nekkoon nañu xawee ay ci jubloom de bés boo xamee ne yàlla digal na yonent bi na bàyyi xibla yahood fii bayti maqadis jublu makka lu yàgg-yàgg yow di danañ di loolu de daañu wax ne lu tax Muhammad soppeeku wàcc xiblaam di xam ne di jublu ji makka rek waaye xul waxam bi ko waxee lillaahi aji nekk la ñaan yàlla al masriqu penku lépp wal maxrib boog sow maanaam mboolem wàll yi de yàlla moom wàll yëpp amul ci wàllu gum moomu kon nag amul jaam lu mu war a yàlla digal ab yonentam mu julli jubli ci wàllu kosoor def yaar yi dana mu jubal man ne saa ku mu xaw a jubalam ila siraatin jëm ci yoon mustaqim mu daal di jub te dina lislaam ne képp ku yàlla sànn daal dana la jubal nga aw ci diina lislaam ji nga xam ne yéen ci ngeen nekk rek ñi nga xam ne dañuy diinal yàlla jeexateem waaw ñooñu dañoo réer leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa leen ne fa mu gàddaay dem Madina julli na ci lu baytul maqdis fukki weer ak juróom benn wala fukki weer ak juróom ñaar loolu yëpp nag taxutoon waa ba tey ba mu ngi doon sabu di gudd yàlla sax dañu wel mu julli waa jublu kaaru la rek nga xam ne mooy ci mbay waaye ki nga xam ne ci ñoom la nekk li ca mujj nga nag julli xamal ko ne ko sa borom dana la jox ñu wel nga jublu ci jeneen xibla waxu ko muy jublu mu daal di xam ne xibla jëkk bi nag foñ nañ ko te xamagu benn ñaar yi muy moo waral mu doon fokki bëtam bàyyi na di xoolaat maanaam julli wala du ñëw ñu ragal julli ba te doo am xibla waaw moo waral waaw muy xool wàllu asamaan waaw di toppoo ak wayu le ba wayu nga ñëw nag jox ko ndigal ne jublu màkka ne ñëw fekk nag yàlla xamaloon na ko ne loolu soo amee it waaw weddikat yi daañu ci dinga dinga du bëri waaye bu mu leen faale waaw ba nga xamee ne wax fekk yàlla ko loxo nag ba lu jiitu ñu wax ko wax ko itam tontal seen layu baatil yooyu moo tax nga xam ne wax nañ ko it waaw julli ñi nga xam ne sax nañ faale wuñ la ñu wax rek nga xam ne moo xam ne leer nañ ca ba mu të waaye daal waaw bariwul de wakasaalika kenn ñu jubalee leen jëm ci xibla jooju jaalnaakum lan def leen yéen xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii tàmmeef de wasatan ñu di way maandu di takkoonoo ngir na nekk maa fi waral nit ñëpp ca péncam yàlla na yéen a nekk rasul yonent yàlla Muhammad sayyidan gaa ji seede aleykum waral leen yéen itam yéen itam yonent seede waral leen waaw seede ñeel leen ne moom itam jotal na leen de yàlla solo ci laay ji ne tànn na xeetu yonent mi tànnee xeet ñëpp def na leen ñoom ñëpp ñi di ñu maandu def na leen di ñu maanu ndax ñu mën a joxe seede péncam yàlla waral mboolem nit ñi ak xeet wi ak li ci nekk ci ay wàññeeku yëpp te def na leen ñoom ñëpp ñu di way maanu mboolem xeet yonent sallallahu nga xam ne dem nañ laa ilaaha illa muhammadu rasulullah ndaxte su loolu amut bon yonent yi dañoo am ku leen seede pencam yàlla bu leen seen xet ya weddee mais jotal lu leen woon de seede ci pencam yàlla dana ñëw ci ñeenti façon ñeenti xeeti seede malaaka yi nga xam ne ñoom la yàlla wàccul jaam bu nekk sa mbagam nday joor raq yi ba ngi ci sa mbagam jàpp ci da ngi ci maa yalfizu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiidun amul lépp looy wax lu mooy ñaari malaaka yooyu danañ ko bind muy lu baax muy lu bon naka noonu a jot malaaka yi nga xam ne ñooy seede say jëf bu fay jam yàlla ku nekk da nga ñëw ànd ak say seede wa jaa'at kullu nafsin ma'ahaa saa'iqun wa shahiidun nit ku nekk buñ koy li fay jam yàlla ñu ko jiital boole koog malaaka yi nga xam ne ñoo doon seede mboolem lam doon jëf de benn seede ngoog ñaareel ba ciri jaam bi wa tashhadu alsinatuhum wa arjuluhum bimaa kaanu ya'maluun nit ku nekk ay cëram dana seede la xam ne moom la doon wax de moom la doon jëf ak la al yawma naxtimu alaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu cër yëpp danañ seede cër lu ma fa def dara dana ko seede fa kanam yàlla leen fekkee ni tànk dana wax ne man maa doxoon jëm ci lu neexul yàlla lammiñ ne man maa ko waxoon loxo ne man maa jàppoon bëy ne man maa xarafoon biit ne man maa lekkoon nopp ne maa déggoon bët ne maa gisoon waaye naka ñuy seedeelu ban waral xéefar ak moykati yàlla yi noonu lañuy ñuy seede itam lu baax ñeel julli ñeel toppkat yàlla yi rek tànk dana seede ne maa doon dox di dem ci jàkk bët dana seede ne maa doon xool kaamil bi wax yàlla yi lamiñ dana wax ne maa doon jàng téere yàlla bi nopp dana wax ne maa doon déglu alxuraan buñ koy jàng ñoom itam dañuy am seeni seede waaw yoo xam ne seeni cëre leen koy seede ak yonent yàlla muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem yonent yi wa kayfa idaa jiinaa min kulli ummatin bi shahidin fa jiinaa bika alaa haa'ulaa'i shahidan yonent bu nekk danañ ko taxawal mu seede waram xeetam weddi nañ wala gëmoon nañ toppoon nañ wala moyoon nañ yonent yàlla muhammad itam danañ ñëw seede ñu ñun ñëpp ku ne ñun dañ koy gaaraal sa jëf guddi altine gu nekk ak guddi alxames lépp loo def ci bés waay bi danañ ko woon yonent bi ñaari yoon ba mu génnee àddina itam su ko defee muy balul muy balul ñi nga xam ne tey dañoo mooy lu mooy ñaar ñu ŋaayoo nag bu ñu ne ñaar ñi dañoo ŋaayoo nag mu ne ñooy ñoom nañ dem bañ juboo feeg juboo bu ñëw de su ko defee nag yonent itam seede waral ñu yonent bu nekk it seede waral xeetam bu yàlla fa ngay jaam yëpp way jëkk way mujj nit ak jinne seytaane ak ñu daje ci benn pàkk ñu weddi ci nit ñi la ñuy a fang suñu dajee mboolem li aadama jub dale ca aadama ba fi fa dina yem ñoom la ñuy a fang ñu fang jinne yi ñu wër leen fukki ndombo ndax doomu aadama yi ñu bëri yëpp asakay jinne yi rek lañ su ko defee ñu fang seytaane yi ñoom ñu wër ñu wër jinne yi fukki yoon ñoom itam jinne yi seen asaka lay ñu fang malaayika yi dëkk ci suuf ñoom it ñu wër saytaane yi fukki ndogo ma am nit ñi ak jinne yi ak saytaane yi asakay malaaka yi dëkk ci suuf rek lañ ku boole la asakay malaaka yi asamaan bu jëkk la asakay malaaka asamaan bu jëkk asakay malaaka yi asamaan yi ñaareel ñaareel la ba ba ñaar yi juróom ñaareel ba ba ñuy dem ci bayti maamoor ba ba ñuy dem ci kursi yàlla ga ba ba ñuy dem ci aras aras am na juróom-ñaar téeméeri junne waaw loolu la loolu la mu nekk waaw la fa nekk ci mbindeef waaw mboolem asamaan yi juróom yaar ak suuf juróom yaar ak kursi yo yëpp asakay mel loolu ci dañ daje ci benn fa bu yàlla jëkka xoo jibril ndax moom moom lañ daa yónni woñ gi yow Jibril moom la ñu njëkk waxoon naa la ne nga jël ci lawil mahfuz téere pour yonent yàlla noonu yóbbu ko ci moom mu defar ko xeetam ndax lawil mahfuz joxoon na la lawil mahfuz ne moom joxoon na Jibril li mu ko laajoon Jibril ne jot na ca lawil mahfuz sax balaa ñëwaat fii foofu yàlla xalimbaan gi lay njëkk a xalim ba gi bind loo naa la ci lawil mahfuz nangam ndax bindoon nga ko mu ne bindoon naa ko lawil mahfuz ne bindoon na ko lawil mahfuz yow liñ bindoon ci yow waxoon naa nga jox jibril téere sàngam pour yonent sàngam jox la jibril wala joxuloo ko jox naa jibril jibril la jox la ma jibril yow ndax jotaloon nga yonent bi yonent mu ne jotal naa yonent ba ñu xaw yonent ba yonent yàlla noonu mooy njël beneen yonent yooni bandi ko taxawal nga ko yow ndax jibril joxoon na la yonent gi gi ñu ko yónnee woon ci jotaloon na ma ko de ndax jotal nga ko sa xeet mu ne jotal naa sama xeet na sa xeet def sama xeet weddi nañ mu daal di xaw xeet yonent yàlla noowoon ne ndax noowoon dasaloon na leen ñu ne déedéet maa jaa anaa min basiirin wala nasiirin ñun kenn lu fi ñëwaat noowoon waxut dëgg waxut ñu dara yàlla ne yonent yàlla noowoon ndax xam nga seede ne jota nga fa xeet mu ne am naa seede mooy xeet yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di wax xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ndax noonu jotaloon na xeetam waa li ko yàlla yónni woon xeet yonent la seede nañ ne yonent yàlla noonu jotaloon na li ko yàlla yónni woon xeet yonent yàlla noonu ne xeet Muhammad nañ ñi mën a seede te ñooñu mujj yàlla ne na ngeen di mën a seede seede xeet yonent yàlla noonu te yéen a leen mujj yaa yónni ñu ne ab yonent dëgg wàcce ci moom téere boo xam ne baatin du ko dikkal ci kanam gannaawam téere boobu moo ñu solo ne yàlla yéen ñu woon ne yonent yàlla noohu inaa xam naa noonu na nit ñëwe di ko boobu lay dal sax ñu ne yonent yàlla Muhammad sa xeet wii di seede ndax mat nañ seede mu ne sama xeet mat nañ seede ay tameef lañu way maandu lañ de mën nañoo seede su ko defee seede si yonent yàlla noohu dal di sax waa aw lay war ñeel nitam ña ñu daal leen fab ñoom ñëpp yóbbu safara ñu teg waaw yonent ba ca topp teg yonent ba ca topp teg yonent ba ca topp baax bi ñun de ñu ñooy li yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu seede ne waaw jotaloon nañu de ñun ñu seede seede ne jotaloon na moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ñun gëm nañ de tànn boobu yàlla tànn xeetu yonent des boobu ñëw waaw moo ko waral de waaye ko nekk rasul yonent yàlla Muhammad te yonent de ak seede aleykum wa rahmatullah wama jaana ñun day mujjalunu ak xiblata xibla di nga nekk léegi da fi jaaja kunta nekk nga ale ay ci jubloom léegi te kaaba ga soppi gi nga xam ne yàlla soppi na xibla ji ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne julli moo xeexam di jublu ca kaaba gi nga xam ne moo nekk ca makka de gannaaw bu mu jullee jublu ma maqdis fukki weer ak juróom benn wala fukki weer ak juróom ñaar bindaani maalama ndaara ngir nañu xam xam-xam ak feeñalam nit ñi man yàqa biroo ka dana mu topp rasoolu yonentu ba ba dëggal ko li man yeen xaliwu kaka dana mu soppee ko ala xibay ci gëstanam de ala xibay ci kéefaram de danañ xam ñi nga xam ne lépp lu yonentu wax ñu dëggal ko ak ñi nga xam ne waa fi waxee lu te seen xel ñu muddade waaw defe ne yonentu bi ci ngalamaa la nekk de wa in kaanat naka nekk na xoppi gi xibla bu soppi la ñu jëm Makka la kabiratan di aji tiis ci nit ñi de soppi boobu ñu soppi woon xibla ji lu tiis waaw way doxa di gëm ñi la de di la eh, ndara ci ñaaña xar da laa jubal na leen yàlla de waaw lu ma ña nga xamal ne yàlla jubal na leen fekk na li yàlla jëkk wax mooy lay ñëpp yàlla moom ay mbindeefam lu ko ci neex mu dawal moom moom wàll yi yëpp wala bu ko neex mu sant jaamam mu julli jubli ca jaam boo xam na ne ci ndigalal yàlla la wéy wet gum mën a jublu rek mu ngi ci njub jaam boo a bakkanam fu jublu nekkul ci dara moo tax yahud ak nasaraan amuñu xibla ndax yahud dañuy julli di jublu xarfu rek ñoom xarfu lañ gëm ndax la nga xam ne yonent yàlla Muusaa ca wàllu xarfu la nekkoon ba yàlla jox ko tawreet ba maa ko tëdd jaani yul xar bi wàllu sowu wala Musa amee karama yahuud ne boo na sowu moo gën ñun fi ñu mën a nekk daal bu ñuy julli sowu la ñuy jublu topp seen bànneex yàlla digalul leen ko nasaara itam ñoom penku rek lañu tànn wàll bu ñu a nekk bu ñuy julli dañuy jullu penku ndax fan sabasat makaaran sarqiyan ndax Mariam ba nga xamee ma ngay sangu ji ba yàlla may ko Isa waaw ca wàllu penku la demoon de waaw ba nga xamee ne wàllu penku fa la yàlla terale Mariam nag ba may ko Isa ku nekk